amal ziar bu mag ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaka mbàkke hizbu tarqiya asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi baaxoo di seetaan seen télévision al mouridiya amati nañu mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq it ci weeru sell wi nga xam ne si ci lañu ñu jógee muy shahru ramadan mubarak di yaakaar ne it di ngeen baal àq ñu leen di baal àq yéen ñëpp di ñaan suñu borom mu defal nu fekk ay déwén yu bëree baree bëri euh, te kilifa gi nga xam ne moo nekk suñu kanam di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké suñu borom bàyyi ko ci suñu kanam mu ànd ak ko wér ci kanamu taalibe yi ba nii nga xam ne si noonu la ko doon dundale euh, ni ko way juróom bu baax wa ak Cheikhul Khadim daan dundale mu ñëw jaar ca tànk yooyu di ko dundale noonu ànd ci ak euh, mboolem njabootu Serigne Touba gi ànd ci ak taalibe yi ànd ci ak daara Hizbut Tarqiyyah kuréel yi ak mbokk taalibe yi fu ñu mën di jóge ñëpp ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara bu baax a baax a baax baax Euh, di ñaan suñu borom mu yàggal taxawaay yëpp te nangu liggéey bi euh, su ko defee suñu jataayu tey bii nag di jataay boo xam ne sii dañuy am mbégte lool euh, di ci ànd ak yéen ndax xam ngeen daara Hizbut Tarqiyyah dafa am lu rëy muy xew-xew di événement bu mag boo xam ne mi ngi koy waajal féeki fan mu jàpp ko nag ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai wi nga xam ne si ci la ñu nekk mille 2021 muy lan ab ziar boo xam ne si dañu ko fas yéene amal ci kilifa gu tedd gi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na ko suñu borom sàmm te bàyyi ko fu mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ah, looloo waral kon faw rek ñu dajalewaat ñi nga xam ne si ñoom ñoo ŋànk liggéey boobu ak organisation bi ak nu ñu ko war a doxale ak it euh, yitte yi nga xam ne si moom la ñu fas yéene def ci ziar bi ngir rek fas ziare yi ñu daan organiser fa mu daan jaar bi tamit mën a jaar foofa wala sax mu gën a euh, kawe yooyu loolu waral kon tey ci sunu euh, jataayu tey bii daañu ci ànd ak Serigne pap Assane Diouf Pape Assane Diouf xam ngeen ko bu baax seen télévision Al Mouridiyyah mu bokk it ci comité scientifique bu euh, Hizbut Tarqiyyah daañu dikk ak moom ci ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne si danañ waxtaane rek ci wàllu ziar ak li nga xam ne si moom mooy cëslaayam euh, ci lislaam ak it ñoom euh, nan lañu ko gisee nu ñu ko nar a doxale incha allah daañu ànd it ak Serigne Mouhamadou Lamine Diouf moom it xam ngeen ko bu baax ci daara ji waaye xam ko bu baax ci télévision Al Euh, mu nekk it kenn ci ñi nga xam ne si ngànk na ci liggéey bi lu am solo pàcc bu am solo moom it danañu dikkal euh, ci ay leeral yu am solo ci euh, ziar bi ak nan lañ ko fas yéene doxale ñu ànd it ak sëñ Modou Thiam moom tamit xam ngeen ko bu baax a baax ci daara ji ci pastéefam ak liggéey bu am solo bi nga xam ne si moo ngi koy def ci coordonné mboolem li nga xam ne si moom mooy daara yi nekk ci biir réew mi yëpp Euh, liggéey boo xam ne si liggéey bu am am solo la euh, di it euh, bokkaat ci nga xam si moom mooy secrétariat général bu Hizbut Tarqiyyah ànd it ak Serigne Ibrahima Keita moom tamit mu nekk secrétaire général bu daara Hizbut Tarqiyyah moom it di ci def liggéey bu am solo boo xam ne ñëpp wax dëgg ñu ngi ko ci ndokkeel bu baax a baax a baax a baax ñuy nuyu it jëwriñ ji muy Serigne Youssou Diop. nga xam ne si moom la Serigne Touba samp tey mu nekk ci euh, bopp mbooloo mi euh, di ci doxal doxal boo xam ne si doxal liggéey bi doxal goo xam ne si bu am solo la wax dëgg yàlla boot ñëpp hmm, di fédérer lépp euh, ñëpp rek gis ci seen bopp bu baax a baax a baax ginnaaw bi nga xamee ne kon Serigne Atou yàlla suñu borom seral ay yaxam te teg loxo ci njaboot gi Euh, jëlee na ko fi Serigne Youssou ñëw wutu ko ci liggéey boobu ñu ñaan suñu borom rek mu gën koo dëgëral ba li nga xam ne yéene na ko ci liggéey bi ci barkeb Cheikhul Khadim mu man koo yeggale incha allah su ko defee kon dañuy bàyyi rek euh, suñu gan ñi euh, kenn par kenn ko defee ñu daal di nuyoo mën nañ ko tàmbalee ci Serigne Pape assan Diouf Serigne Pape Assane salaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa di la siyaare mm-hmm. di nuyu itam sama jiwri ñi nga xam ne tey moom nga ma yaakaar naa loolu dana doon tawféex ci man mm-hmm. ah. waaye di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha mm-hmm. di ko ndokkeel itam ci weeru màgg yi nga xam ne ah. yaakaar naa ne dekkal na xol yi ñëpp dundal na leen itam ci weeru sel yi ah. ñaan suñu borom may ko gudd fan ak wér di ñaanal itam suñu jëwriñ mm-hmm. eh, sëñ Youssou ni ko waxee liggéey bi sëriñ Touba taxaw ko ba liñ ci yéene yëpp ñu am ko ci ni ko bëggee eh, yaakaar naa daal loolu moom lay duggee tey yëglu bu baax nag ndax jëwriñ moom xam naa ne tey daal kay waaw jotaay bi dafa yéeme tey ndax man li mu ci yéem mooy <laughs> moom ku ñëw da nga naan sama jëwriñ a ngi nii kenn ku nekk jàpp nekk diw mooy jëwriñ ci <laughs> sëñ Lamine salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Modou ñu lay delloo nuyu bu baax di ziare sëñ Assane di ziare sëñ Modou Thiam ak sëñ Ibrahima Keita eh, di ci jaar di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadou di ci ziyaare nag euh, suñu jëwriñ sëñ Youssou Diop jëwriñu bu Hizbut Tarqiyyah ak mboolem membre daara Hizbut yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak gone yi mu mel ni ñëpp seen itte seen xol seen xalaat ak seen jublu ci bis boobu rek la jëm muy ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai di ñaan suñu borom mu yóbbu ñu ci ak jàmm yegg lañu ci ñuy defee ko ni ko ni ko ni ko sëriñ bi digle sàkku ci ngërëmam te am ko ci jërëjëf jërëjëf sëñ Maodo Lamine lay santaat bu baax a baax sëñ Mat Thiam salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi lay ziar bu wér a wér sëñ Kébé. Uh-huh. ci di sant bu wér. Uh-huh. ci tey jii jotaay bi nga xam ne am nañ ko. Uh-huh. mu dugg ci wàllu wàccaayu ziar bu mag bi ñu jëm. di sant sëñ Tuubaa bu wér. di ñaan moom ma Cheikh mun taxa Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ba naal yi naal yéene ko bëgg koo defal Seexul Xadim mu def ko ni ko bëggee. ñoo ànd ak moom liggéey boobu. di ziar mbokk taal bi yëpp di ñëpp itam. di sant itam jëwriñ daara ji ñu nga xam ne nii moo sooke lii woote ne nañ dem ziare ji sëriñ bi ba tax boobaak léegi ñëpp buur di taxaw loolu kon nag ñu ngi ziar bu baax di sant bu wér te ñaanal ñëpp ñu nekk ci jàmm ak salaam ci barke borom Tuubaa jërëjëf jërëjëf sëñ Mor Thiam ñu ngi lay santaat bu baax a baax ñaan suñu borom mu nangu ñaan yooyu euh, sëñ Ibrahima Keita asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa euh, ni nga ko waxee rek euh, ñu tàmbalee suñu wax ci ñaanal suñu sëriñ mun taxaw Mbacké sunu borom euh, taxawu ko ba mboolem lu mu yéene ci liggéey lislaam ak taxaw ci yoon wi naal yim ci naal yi yëpp sunu borom yeggali ko ak jàmm mu naalaat yeneen te nu ànd kook moom liggéeyal ci Sëñ Tuubaa te daje ci ngërëmam euh, ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu euh, mboolem ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Al Mouridiyyah di sant bu baax nag ci invité bi ñu invité ci jotaay bi ñu seq ko suñu ay kilifa ak suñu ay sëriñ rek yoo xam ne ah. bu ma ko waxee ñoom danañ xam li ma jublu ah. waaye nag di gërëm it ki nga xam ne mooy suñu responsable moral sëriñ su Diop ah. nga xam ne ci kilifteefam la lépp di amee te ci ndigalam it la ñu teewee ci jotaay bi kon di ñaan suñu borom mu defal ñu ko jotaayu liggéeyal sëñ Touba te lépp loo xam ne aw yiw la bu sëñ Tuubaa doy la ci ku koy liggéeyal rek suñu borom dimbali ñu bañ jot ci jërëjëf lay santaat bu baax daañ jël si waat ci kanam tuuti rek ci waxtaane ci ni mu gën a yaatoo mën nañoo tàmbalee kon ci sëñ euh, Pape Assane Diouf euh, sëñ Pape Assane est-ce que doo jëriñ ci yow jëriñu jotaay bi moom tey moom yow la <laughs> rek <laughs> ah, ndax man fu ma nee nii ci moom laay tàmbale waaw <laughs> ah, tey tey moom nangul rek waaw waaw kay euh, si Pape Assane Euh, ci lislaam bëgg naa nga dellu si waatal ñu tuuti rek ci cëslaay li nga xam ne si am na ko euh, ci taxawaay bi nga xam ne si am na ko aussi ci lislaam maanaam cëslaayam ci lislaam daal cëslaayu ziar jërëjëf sëñ Modou yaakaar ne loolu euh, mën naa ko tàmbale bu sori sax ndax ziar cosaan bu yàgg ah. mën naa tàmbale sax ci yonent yi njëkk ya mm-hmm. lislaam nag boo nee bataaxal la boo xam ne moo boole lépp kon danaa nangu lislaam rek la ah. waaye jóg fekki ku nekkal sunu borom mm-hmm. dafa yàgg ci àddina mm. doomu aadama daan ko def mm. waaye malaaka sax daan na ko def ah. foofu la jaar ba jaar ci yont bi ba ñëw ci sëriñ bi digganteem ak sëriñam ba mm-hmm. ba mu jëgal ñu ko mm-hmm. yow yaakaar naa ne mooy cëslaay li mm-hmm. euh, taarix nettali na ne Seydunaa Daawuda malakul mawti daan na ko siyaare ji ba àggoon na ci mu wax ko ne ko saa boo waree jël si sama ruun naa ko xam ndax gis gim gisoo ne moo nekkal sunu borom ci kaw suuf daana na daan na ñëw ci këram terewul nag xisa bi nettali ne ba muy jël si roo moom te ñëwee na leneen. Mm-hmm. waaye pour woon la ne la ginnaaw malaaka moo daan jóg di seeti nit mm-hmm. nitu yàlla. kon doomu aadama loolu war na ko. Seydina Ibrahima itam lii may wax ne alxuraan moo ko nettali. Mm-hmm. Euh, ba sunu borom yebalee Jibril ak Mikail ci ñu war a sànq xeetu loot ba. daf leen wax ne bu leen wàcc ci kaw suuf te ki ma fa nekkal demu leen siyaare ji ko muy Seydina Ibrahima. nga xam ne malaaka yi ci këram lañ jaar mhm. moom sax ba mu leen gisee ci mën a teral ganam dafa defoon na ay ganam la bu wuti ab gàtt waaye nam xamoon ne ay malaaka lañ mooy lam leen tegaloon laaluñ ko ci la doog a xam ne ñii ndawal suñu borom lañ mhm. kon suñu borom képp ku ko mës a nekkal ci kaw suuf mhm. képp ku bëgg baax lu baax di nga ko fekki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëy sëriñ Tuubaa jàngal nañu ci jëzbul xulóob ne malaaka mi yore àjjana muy ridwaan da daa daan na ñëw di ko siyaare si kaana yazuru manzila ridwaanu kay yu bajji la mhm. wax ne ridwaan daana ñëw ngir màggal yonent bi mhm. di ko nemaku si di ko siyaare ci këram gam nekk kon loolu mhm. wone na ne kon ziyaar lu yàgg la ci ci àddina saa su àddina eh, sunu borom amee ku ko nekkal ci kaw suuf daan na yebal ñi bëgg lu baax ci nit ak malaaka ñu dem di ko fekki lii may wax ni alxuraan moo nett lii yëpp eh, yonent bi sallallahu alayhi itam eh, ci ay fanam yu mujj digaloon na ñenn ci saaba yi ginnaaw bi ñu xamee ne saaba yi seen biir yëpp daan nañ ko fekki di ko nemeeku te alxuraan sax àggoon na ci ne leen bu leen ko nuyooti ak loxoy neen ah. kon nuyoo loxo neen mooy dem gi ñu daan dem ci moom moo taxoon mu ne leen saa bu ngeen koy nuyoo def leen dara ci seen loxo ngir mën koo siyaare ji nuyoo waale kon loolu yàgg na mm-hmm. loolu yaakaar naa dina ci ñëwaat ci ay njariñ yu bari saaba yi seen biir itam Eh, gis nañ ne daan nañ dem di nemmeeku wante kenn ku nekk di sakku lu baax ci sa morom ndax jàpp ne bu ma demee fekki sëñ Modou. Mm-hmm. am na lu mu am ci lu njëriñ loo xam ne mën naa ko jëriñoo. Mm-hmm. kon moo tax ma ne la lu yàgg la. Eh, sëñ Modou yonente bi salaahu salaam ci mujj ay fanam. Mm-hmm. dafa tànn ñaar ñaar ñoo xam ne kenn ku ne xam ne seen njàmbaar ci lislaam mu yebal leen ci ñuy seeraaji ab jaam boo xam ne tegul yonent bi bët ci saayir mooy Seydina Omar ak Seydina Aliou yonent bi joxoon na leen ab manto ne leen dafa am jaam boo xam ne dafa ne ci àll bi jébbalu na waaye àndul ak man muy wesul xarni hmm. wesul xarni sunu borom moo ko nattu woon mu amoon waaye juróom bu muy taxaw ci digg àll ba ba ñëwul ci yonent bi salaa salaam waaye gëmoon na ko ah. gëm ga àggoon na ci ba ñu demee ba ñuy yonent bi ci xareb Uhud hmm. moom fa mu nekk ba ñoom yëpp la la buddi fam ko fa mu nekk la ko yéegee wax ne du ma dese bëñ Muhammad salallaahu salaam ba ñoom di dañ may dese benn te gisu ko teguwuñ tegantewuñ bët ci saayir hmm. bi yonent bi ay fanam yu mujj dafa yebal ñaar ñi mooy ak Seydina Ali ne leen dem leen wéri ko ba gis ko tegtal leen fa mu war a nekk. Mm-hmm. ba ngeen ko gisee jox leen ko yére bi ne ko maa ko jox addiya te ngeen sàkku yéen mu ñaanal leen. kon wéri ku baax ngir siyaare ji ko moo tax ma ne la yàgg na bañ demee. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, sunu borom dimbale leen bañ gis ko. Eh, ba ñuy waxtaan ak moom daf leen moom Uwaysul nii daf leen wax ne yéen xamu leen Muhammadu Rasulullahi. daal ñu ne ko ba ci Seydina Abubakar mu ne leen ba ci Seydina Abubakar ndax man nee na mu ne leen man ñaan naa sama borom mu muuril ma ay kiiraayu sirru Muhammad mhm. mu muuril ma ci juróom-ñaar fukki junniy kiiraay ne ma boo weesoo fii da ngay seey ni kaaraw di seeyee ci sawar kon xamu ko kon gis ngeen ne kooku sunu borom moo defoon ci moom loolu mhm. loolu kon moo tax ma ne la fekki ku baax mhm. day lu lu lu yàgg ci lislaam buñ ko delsiwaatee ci li ñu gën a jege nag dañ koy jëlee ci suñu sëriñ bi nga xam ne moom itam digganteem ak sëriñam ginnaaw dañuy wax ziar eh, eh, dongo ab sëriñam nañ jël diggante sëñ tubaa ak ki nga xam ne moo doon sëriñam mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. àggoon na ci bëgg siyaare ji yonente bi boo gisee ay bindam ci jamono yooyu da ngay defee ne sax dana ko wàññi dara eh, xoolal fathul fatah sëñ bi dafa wax ne yaminu rabbiya mazarul mujtaba mhm. afdalu min min il biladi zahaba waat naa ci sama boroom ne dem siyaari ji yonent bi moo gën nga jël wurus ak suuf duy ko ci asamaan bu mu fees nga jox ma ko boobu mooy jamono yi mu nekkee Touba nga xam ne dafa daanaka buñ bu bu boo moytu wutoon dana demal boppam dox mhm. te li tax li ma la wax nii danaa ci ñëwaat ci bindu ah. boppam mhm. yaa bi sawarul bayti wal madina ziyaaratan hanil riyaam na mhm. nee na yow sama borom maa ngi lay ñaan nga dimbale ma ma dem ziyaar ji néeg ba mhm. ak yonent bi sa alayhi wasallam baytillaahil mooy mooy kaaba ga ci Makka ak madinatul war nee na mhm. loolu moo ma gënal nga duyal ma suuf si wurus ak ak or bëgguma ko kullu zamanin mhm. la azalu atlubu liqaahu wa artaji wa arxabu kabura hazan ma talabtu ya aziz min ka wa ma huwa alayka bi aziz daal ne jamono ju ne lenn rek laa bëggti mooy dem dajeeg moom moom lay xemmem moom laay ñaan te loolu mooy li gën a rëy ci li nga ma war a jox yow sama borom ci fi ma toll daan te gis naa ne loolu jafewul ci yow mhm. ñu gisaat beneen boo xam ne sëñ Modou bind na ci lu bari ci diggante boobu boo demee ci xad xaaxanil yow ma euh, sëñ euh, sëriñ bi wax na ci fi mu toll woon ci bëgg a siyaare ji bi boo demee ci xattaaba xal bi ya sëñ bi wax na ci jamono yooyu fi mu toll woon ci bëgg a siyaare ji yonent bi mhm. waaye ma ma indi benn benn jukki ci jukki yooyu mhm. ba woon la moom fi mu toll woon ci jamono yi nga xamee ne xelam bëgg dafa nekk ci diggante yonent bi dafa am xasida goo xam ne sëñ Modou sëñ bi mi ngi ko tàmbalee ci ini bi jax-jaxi nal muxtaaru mashxoof ci xasida bi da caa wax lu daw yaram ci fam toll woon ci bëgg a dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi yaa laytani tirtu aw li kaana dornoofu aw niltu zaadan balixan aw qadartu ala qatxil mahaamihi haysu shawqu maaloofu li kay azura rasulullahi maljaina yowma alqiyaamati mahma taxwiif sëñ bi da wax ne sëñ Modou sama xol dafa fees dell mm-hmm, mm-hmm. bay waaj a xar te dara taxul lu dul hubba sawra rawdati bëgg a dem siyaara ji barabam bam yonent bi salaahu salaam mm-hmm. daal ne yaa laytani tirtu aka neexoon ma mën a naaw yaa laytani tirtu nee na aka neexoon ma mën a naaw ne cëpp madinatul munawara ndax boobu xam na ne kattanuk dem jafe na ci moom yëbbal jafe na ci moom ba mi ngi koy ñaan sax ci yeneen téere yi mm-hmm. ndax du ma am duñ ma may yóbbal ndax du def nangam ndax du def nangam mm-hmm. moo tax mu ne yaa lay tani tirtu aw li kaana dërnu aka neexoon ma naaw ne lay na cëpp madina su mu naw eh. aw li kaana dërnoof wala dërnoof sëñ Modou mooy gëléem gu am kattan mm-hmm. dul tële nee na aka neexoon ma am ko fi ma toll aw niltu zaadan balixan wala boog ma am yóbbal gu mat yóbbal dégg nga aw xadartu ala xatxil ma wala sax ma mënoon rek xotti ci mbooy gi dox dem Madina ah, tollu woon na foofu mhm. yooyu mooy at yi nga xam ne mhm. bu ko yonent bi feeñu wutoon Touba mhm. jamono yi avant mu koy feeñu tollu woon na ci xotti mbooy gi dem sax nee na bëggoon na ko def moo tax mu ne aw niltu zaadan balixan wala ma am yóbbal bu mat sëkk aw xadartu ala xatxil mahami wala ma ma ma mënoon a xotti mbooy gi rek topp àll gi rek ngir lan li kay azura rasulullahi ngir siyaara ji yonent bi sallallahu alayhi sëñ Modou sëñ Touba xaadimu rasul dem na ci diggante ba jàpp ne. waaw ñàkk a ziyaare bi sax. Mhm. nee na est-ce que du ayib ci moom. ndax mar wu tar wi mu amoon rek. boo demee ci Fathul Fatah. Mhm. dafa wax ne yaxuqu ni hay bi hani ziyaara. Mhm. wa artaji bi madhil bushara. nee na man daal damaa defe ne samay ayib xanaa moo gàllankoor ba mënumaa dem siyaare ji te loolu tar da taxutoon lu dul mar wu tar bëgg am rek. Eh, eh. waaye kenn ku ne xam na ne ayib. moo tax mu ne yaxuqu ne gàllankoor na ma. hay bi samay ayib hani ziyaara ci ngir ma dem siyaare ji ko wa arta ji waaye maa ngi yaakaar kon ci tagg yi ma koy tagg ci xasida yi ah ma am ci mbégam rek gannaaw ma maa dem <laughs> yaa laytani maraxtu taxta qadami ah. xaddiya aw lahazani bi karami aka neexoon ma jël sama lex bi lal ko ci ndëggul tànkam ya wala mu geesu rek yem ci man xam ne maa ngi ci wetti xabrom ba aka ah. neexoon bi muy bind lool sëñ mooju dañoo wax ne tollu woon na ci mm-hmm. bu bu ko yont bi feeñu wutoon ci xaama jëy sasin dana mm-hmm. xotti dem <laughs> waaye nag la la wàññi ardéeram mm-hmm. mooy ba ko yont bi feeñoo ci jàkkay daaru xudduus ah. kon ziar lu am ci silaay la yaakaar naa loolu moom <laughs> bind naa ci lu bari loo xam ne diggante sëñ Tuubaa ak maram ci ak ci dem ci yonent bi euh, day guddal waxtaan bi du ñàkk dana am situation <laughs> beneen dellusiwaat <laughs> ñun ñi nga xam ne nag ñoo ko yaakaar xam nga wax naa la ne kon mm-hmm. ca yonent yu njëkk ya seeti ki yàlla def mbir ci boppam moom mm-hmm. dafa dafa doonoon aada ba malaaka yi di ko def saxaaba yi seen biir daan nañ ko def hmm. yonent bi digal na ko ay saxaaba ñu def ko sëriñ Tuubaa mi ñu yaakaar gis nga li ma la wax ci bëgg a fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba àgg ci jàpp ne hmm. ayib moo tax mënta dem hmm. boo demee ci xad xaqanil yow ma hubbul ahli wal watani yu mel noonu foofu itam day ñaan ak neexoon ma am yóbbal ak neexoon ma am waruwaay ak neexoon ma mën a dox ak neexoon ma mën a lu ne mu koy wax ngir bëgg koo fekki kon loolu cëslaay la ba tey a sëñ Tuubaa àgg na ci sëñ Moodu am na bayit boo xam ne ñun dañ koy jàng dëkkale ko jàpp ne moo ko bind ah. bind ko waxu jàmbur la nett ah. waaye dafa gis waxu jàmbur yi ne kii man lay yett <laughs> mooy toujours ci atu Tuubaa yi may wax mooy ah. raaya zurman tuhib wa in chattat bika daaru wa haala min dunihi sahlun aw haaru hmm. laa yamnahannaka buxdun min ziyaaratihi inal muhibba liman yahwaahu zawaaru nettali bu jàmm waxu jàmbur boo demee te bayit ba ko jiitu nga koy doog a wax dafa xam ne hmm. bi man yu bu nii fi zawri yi baytaani min qawli man bil hurfi ammaaru nee na bi ma yemee ci ñaari bayit yi benn waay wax ko mhm. dama ne bayit yi yi man lay wax baytaani min qawli man bil hurfi ammaaru nee na waa ji digla ak mbaax daal ñaari bayit yi muy wax mhm. waxul ak kenn man lay waxal eh. waa ji lan la wax zur mantu tuhibbu na nga dem siyaara ji koo bëgg sëñ bi ne ah kon kii man lay soññaat ma dem ci yonent ndax muy jamono yi mu amoon maruk bëgg a dox dem mhm. moo tax mu ne waxi waa ji mhm. man lay yedd bi man yu bu ni fii mhm. zawri rawdatihi mhm. baytaani min li man bil fi amaat doog a indi béyt yi boo xoolee béyt yooyu da ko dugal ci yooyu waaye wax ji waa ji waxoon mu jàpp ne moom lay soññ ngir mu siyaari yonte bi loolu lay firi waa ji dafa wax ne zurman tuhibu wa in shatat bi ka daaru wa haala min dunihi sahlun aw haaru laa yam yamnahannaka buhdun min ziyaarati li man liman yahwahu zawaaru nee na ziyaara jil ki nga sopp donte sa diggante ak moom ay xur ak i dex mhm. nee na de dafa dox sa digg ak moom mhm. ndax ab soriwaay distance mhm. warulaa warta téye nit ku sopp nit mu dem siyaare ji ko sëñ bi ne kii man lay waxal ah, moo tax mu indi ko ci raaya kon moom foofu la toll woon ñun ñi nga xam ne ñoo ko yaakaar it uh-huh. daf ñoo diggal ci ñu dem siyaare ji suñu kilifa wazur xiyaaral xulama wa saalihin wax dim humoo lillaahi jalla kullahin moo wax ne na nga siyaar yi tànneefi boroom xam-xam yi euh, te di leen liggéeyal saa su nekk wat mhm. watlub duhaahum na nga sàkku seeni ñaan dégg nga wa minhum abadan kun za tabarrukin na nga dem di barkeelu ci ñoom mhm. barkeelu nag buñ ci ñëwee ci waxtaan bi waaw euh, dafa am lu bari nuñ koy defee ci kilifa goo xam ne moom nga siyaare ji waaye mhm. wax na ne daal na nga dem di leen siyaare di sàkku seen ñaan di barkeelu ci ñoom ndax lan fa tas daadal huda loolu day yokk sa njub kon ci njëriñi siyaar yokk ak njub bokk na ci dinañ ci dellusiwaat mu wax ne fa inama illaaju rabbil harshi fii maa qad nuqil ndax mhm. boroom xam-xam bu jëfee xam-xamam mhm. te loolu bu ñu ko waxee xalifab sëñ Tuubaa moom mhm. la sëñ Tuubaa waxoon ne fekk gaa ñu baax ñu yem fa la yonent bi tàmbalee ab boroom xam-xam itam fañ yem ci seenu mbaax ak ak sellam xalifab sëñ Tuubaa fa la tàmbalee moo tax mu wax ne màggal ku sunu boroom màggal nee na moom màggal sunu borom ñoo yem loolu lépp kon ñu gis ne njariñ la yoo xam ne mooy cislaay bi tax jóg fekki sa kilifa fekki sab sëriñ fekki ku baax fekki ku nekkal suñu borom sëñ Modou du la am njëriñ loo xam ne du ñàkk bu ma dellusiwaatee ci waxtaan bi mhm. danañ ñëw ci ci njëriñ yooyu euh, ci tënk daal loolu laa bëggoon ubbee maa ngi am na solo <laughs> jërëjëf <laughs> jërëjëf suñu Papa Sane ñu ngi lay santaat bu baax a baax yaakaar naa fi nga duggee ak fi nga ubbee Euh, foofu rek la euh, foofu mooy mooy mooy buntu bi maanaam li nga xam ne moom mooy cëslaayu ziar ci boppam indi nga ko euh, malaayika yi seen bopp daan ziare si ñi nga xam ne ñoo doonoon xalifatullahi fi ard tudd nga ci Seyda Ibrahim tudd nga ci ñeneen ak ñeneen Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu Mamadou mel ne kon am na leneen loo xam ne si boros na ko ci léegi nii rek muy jëmmi barkeelu ci boppam mel ne barkeelu lu ñu nangu la ci lislaam nga xam ne dañuy barkeelu sax ci aw yat dañuy barkeelu ci ay daal dañuy barkeelu ci mbubb dañuy barkeelu ci mbaxana rawati nag jëmm joo xam ne si jàpp nañ ne kii mooy xalifatullahi fil ard maanaam moo teewal suñu borom ci kaw suuf kooku yaakaar naa siyaare si ko wala barkeelu ci moom lu yell lay doon ci ki nga xam ne si euh, ma ngay xëcc jëm ca boromam te nag nag am na lu bëree bëri lu mu koy dool loo xam ne bu ko yëgee bu ko yëgul dana ko def ci moom saa bu ko gisee. jërëjëf ñu sant euh, indi ay leeral yu am yoo xam Euh, dafa jaar rek ci la sëñ Abdou Lahad waxoon daan wax ne mhm. liggéey bi ñu war a def ak sëñ Tuubaa nag balaa maa ñëw ci suñu diggante moom damay ñëw ci diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa ngir ni mu def yonent bi rek mhm. lañ koo def kem suñu kàttan mhm. su ko defee nee na mooy tax ñu jariñu te moom nee na diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa yegg na ci ab xaaniyallaahu bil muxtaari mujizatan kama bihi li sama fa waxal buraax sara nee na yàlla bàyyi na ma fi ma nekk di kéemaan ci yonent bi ni mu fabee yonent bi teg ko ci kaw alburaax yóbbu ko ci asamaan nee na li mu nekkee kéemaan nee na des gi ma fi des mhm. ci toolu yonent bi saa sam nee noonu la nekkee kéemaan nga gis te kon moom ziyaar yi mu doon def ak yéene ji mu ci amoon ak nag jéego yi nga xam ne teg na ko ci mhm. ndax sëñ Asan wax na léegi raay ya mhm. eh, ci raay yi sëñ bi danaan suñu borom de ak gàllankoor yi am waaye nag man ginnaaw jëmm ji moom mënta dem xool bi moom fa lay yendu fa lay fanaan mhm. wa huwa lazi hiiqa jismi han ziyaaratihi laakin lisaani lahu kal xal bu zawaa mhm. neen looloo waral sax sëñ ma sàmb Jóob sàmm sëñ bi woo na ko bis ba ne ko utal ma yóbbal mhm. ak ay loo yoo xam ne dañ leen di wulli ba ñu nooy ak mbuus ak baraay ak lépp moom ba mu ko defaree ba lépp àgg bi mu ñëwee di ko wax sëñ bi ci la fekk sëñ bi ne ko yonent bi saa sama fekk na ma fii ba xamal ko lim ko ci dël ak li mu di kon moom mhm. jaaroon na ci yoon wi moom mhm. ngir dem ndax dem na ba mënatu koo mbuñ loolu nag euh, mu wax nag moom la muy la muy fekk ci barab yooyu mhm. moo ñuy xamal ñun ziyaare ko lañ ciy jëlee xam nga dangay dégg mu naan euh, ci ci ci ci rum naa bëy bi daanu ci muxtaari sayidina zawri zawri madinatuhu daara rayahin daarul matee maayi zurha zairun li hudan yashat hiya daaru daarul xaqi wa diin nee na madina gi nga xamante ni moom lay xëccu ak di xaaju ngir bëgg faa dem mooy barab boo xam ne ku fa teg sa tànk ba ziyaare barab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam texe nga ngir mooy kërug dëgg di kërug diine nee na loolu nag moo mujj moom sëñ bi nee nañu nit daan na daan na ko tàggu jëm jëm jëm madinatu munawar mhm. mu jox ko xasida asahaabul jannati ilayka yaa xayral bariyati salaam xadimika lazi kafaytuhul malaam ne ko soo demee ci barab ba mhm. nang ma ko fa jàngal mhm. nga gis ne kon moom loolu yëpp kon cofeel gi mu amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay wane léegi nag muy wane nag ziyaare ko li muy li muy li muy li muy jëriñ innal muhibba liman yahwaahu zawaaru ne nit ki ki mu sopp dafa war a dem ziyaare ji ko cofeel nag fi mu mën a àggale nit moo kéemaane sëñ bi day nettali ci xikmatu Seexul Xaddiim xisa boo xam ne Malick Dinaar moo ko nettali neen dafa am benn xale boo xam ne nee na nit ñi dañuy dem màkk xam nga màkk ko fay dem da ngay ut yóbbal ut waruwaay ut yu bari nee ñu gis ko muy dox ak tànkam yorul dara ñu ne ko waaye yow foo jóge mu ne leen ci moom ñu ne ko koo àndal mu ne leen moom ñu ne ko luy sa yóbbal mu ne leen moom ñu ne ko xoolal gone gi bu ñu jommal màkk ku fay jëm da ngay ut yóbbal ut nangam. waaye nee na daleen leen wax waxi biir yoo xam ne nee na ba ñu demee ñoom di aj bay wër Kaaba ga. Mhm. ne ko doo ñëw ñu dem wër mu ne leen yii man attanu ma ko. Mhm. bàyyi leen ma ma toog fii rek. ñu ne ko lu tax ñëw ba màkk te wëroo Kaaba gi nooy amee aj mhm. mu ne leen damay bañ dem ci Kaaba gi di wër naan làbbay ka su ma yàlla nee laa la béykat la ko fu ma jëm. Ah te ngeen dem moom te bàyyi mu fii. nee na moo doon wax nag bayit yooyu hajjoo ilay wa baytun kaabatun nusibat wa saahibul bayti hinni wala maa xuribat ah. kon ni aj leen waaye man borom néeg bi ngeen di aj man man moom laa àndal. waaye nee na cofeel googu mu amoon ci suñu borom. Mm-hmm. nee ñi dañoo tëdd guddi bi mu faatoo am benn boroom xam nga bu ko gis ne ko waa yow. Mm-hmm. noo def ba ñëw fii mu ne ko man de la yàlla defal ahlu badrin defal na ko. Mm-hmm. waaye ñoom sax maa leen dàqale. ndax ñoom ci jaas yi yéeféer lañu faatoo te man ci cofeeluk suñu boroom ci laa faatoo moo tax sëñ bi ne ziyaare bokk na ci li muy jariñ moom sëñ Tuubaa ku ko defal moom moom Seexul Xadiim nee na suñu boroom dina la defal njub dina la jéggal say bàkkaar àddina ak alaaxira mm-hmm. dina la defal xéewal dina defal njëggal te ñëpp yooyu moom la ñu ko lu mën xadama yi aw zaara fan na ji wax fi loo aw zaara suñu borom dalay jéggal say bakkaar ba noppi aar la dox sa digganteeg lépp mhm. wax na ne suñu borom mboolem ñi nga xamante ne dañoo jóg jëm ci di ma taggal leen ak bakkaaru àddina ak alaaxira Tuubaa sax boo demee ci Matlabul Fawzayni gis nañu Asan doon wax mhm. bokk na ci limu ñaan suñu borom suñu boroom mhm. waxfir li kulli man biha xadd sakana wali lazi lahaali xayn rakana nee na ñaan naa la nga jéggal képp ku jóg Tuubaa ak ku jóg jëm si fi ngir lu baax bakaar mi mujj ak bakaar bi njëkk ca saar saara nag la waxee loo xam ne moom lañu ñu mës a gis mës koo dégg mu diggee ko ci nit ku jóg siyaare ko tàggoog bakkaaru àddina ak àllaaxira Sëñ Abdu Lahad leeral ne loolu du ca saar saara la nekk waaye nee na fépp foo xamante ni fu sëñ Tuubaa nekk ba fu àddina yam ku jóg ngir moom. Mhm. yàgg ko fekkoon saar saar yéen a bokkaate kon ziar loolu lañ fiy wut. Mhm. da ngay ñëw ci sëñ bi mu xool la. Mhm. sëñ bi nee na sëriñ bi ngay ñëw ziare ko. sukk ci kanamam mu yëkkati bëtam xool la. tey mbooloo mépp teew Cheikh Modou Mountakha toog siggi xool wet gu ne mu xool leen. nee na dinañ ci amee loo xam ne ci ak yokkute. soo demoon sa kër di jaamu yàlla. ren ba déwén mënoo ko am ci benn xool boobu mu lay xool. la ko ya juut la wax. ngir nga amee ci loo xam ne. tourni nii dana la doy wëlis leneen li nga doon sonn lépp mhm. di ko sonn mhm. kon nee na benn gendiku bu mu lay ko rek mhm. ne la jàkk bëgg ci yow muuñ la nee na suñu borom dina la ci yéegal ci daraja loo xam ne boo delloo sa kër di jaamu yàlla ren ba déwén mënoo ko ci am nga am ci benn ziar ziar boobu nag sagam rek nit koo xam ne day ziare euh, mbokkum jullitam rek ngir lu baax dafa am Cheikh Omar benn taalibeem boo xam ne dafa musa ànd ak moom ñu dox ba ci yàgg mu jiitu ko lu bari fekk bi mu gëstoo di ko seet ne ko looy xool nii fekk dafa am benn tànk bu mu xool dëgg benn dëgg waaw gis ne waa ji kat euh, fan yu néew ci àddina moo ko dese fukki fan wala juróom-ñetti fan wala yu ni mel mhm. te fekk na waa ji dafa jógoon di seeti mbokkam mhm. bi mu ñëwee ne ko looy def mu ne ko waa man tànk bii de suñu borom dafa maa xamal ne boroom de xanaa fukki fan ko fi dese mu ne ko ah yow jàmbaar nga yaa ngi xor xorol kat ndax yow kat gannaaw boo xoolee li mën ko xool eh, mu ne ko ndax xam nga lu ma doon doxi mu ne ko dafa mel ni de mbokkam la jógoon di siyaare mhm. mu ne ko kañ dem li jarul tardé di at bis bu ne defal naa ko ko nangami at eh, te kooku mbokkum jullitam la doon siyaar waaw ku jóg nag di siyaare si seexul xaddim mi nga xam ne ñëpp moom la ñu yaakaar àddina ak àllaaxira nga xam ne nee na malaayika yi mhm. dañ maa bëgg ba gëmewuñ mhm. bëgg ma kon doomu aadama yi ñun day mel nii. ñoo mhm. ñoo ñoo ci gën a néewle. xar war dina mën aawuna fil jinni <laughs> uh-huh. kon nag ziyaare bi ñu koy ziyaar. Mhm. saa bu ñu jógee jëm ci moom. Mhm. bu ne tàllal leen ñu tàlli ñu tàllal bu ne tëf pajuk aajo tey ak ëllëg lay doon. ndax daan daan daan wax ni. maanaam euh, tey ji euh, sëñ Touba. tàng ki xam ne siyaare ko. maanaam du du du du du du caaxaan. dafa bokk ci yi nga xam ne. murit bi suñu borom daf ko ci yéegal ci ay daraja mhm. ndax dañoo suñu Basiru da koy misaal ci nee na am na lu ñuy wax u mhm. muy mbonaat waaw nee doom yi du leen nampal de <laughs> kenn gisul mu du leen jox dara daf leen di xool rek ñu rek maanaam bu leen xoolee dañuy rek ah, kon nee na moo a taalib bi bu ñëwee ci sëñ bi ah. nee na sëñ bi da koy xool benn xool boo xam ne bu ko ci xoolee mhm. aajum yëpp ci lay faju tey li mu bëggoon lépp di ko wut mhm. ci la koy amee li mu ragaloon lépp mhm. di ko dàq suñu borom mhm. tàggale ko moom ci ziar boobu dëgg la mu ngoog jërëjëf suñu maam Lamine daañu dellu siwaat léegi incha allah euh, su ko defee daal di continuer it ci buntu boobu ndax buntu bu am solo la mi nga xam ne rek moom mooy taxawaayu ziar ak li nga xam ne it loolu la mën a jural euh, taalibe bi xam naa mën naa ñëw ci ma Ibrahima euh, laata may ñëw ci sëñ Moutiam sëñ Ibrahima nga nekk ci direction général bu Hizbut Tarqiyyah Euh, daan nañu def ay ziar yu bëree bëri euh, jaale ko ci sëñ Abdou Lahad ba ci suñu Cheikh Mamadou Mountakha ak ziar bu mag bi nga xam ne si moom la ñu mujjoon a def euh, ren ñu jàppaat beneen boo xam ne si tey mën naa am dana am ay coppite mën naa am dana am feneen façon doxalin boo xam ne si moom lañ ko fas doxal moom lañ ko fas yéene doxali naka la organisation bi fas yéene demee ren ak ziar bi nan lañ ko tërale ak ñi nga xam ne si ñoom ñoo ko liggéey bi loolu yëpp daal nan lañ koy nan lañ koy organiser. jërëjëf sëñ Modou. Mm-hmm. xanaa jiital ak cant rek ci ni nga xam ne sama sëriñ yu baax yi moom lañu ñu tàmbalee waxtaan wi xam ne lépp it day delluwaat ci sunu borom mhm. muy sant yàlla mhm. isbu tarxiya ci boppam mhm. euh, boo ko doon misaal ci mbooloo dafay tënkaat rek li nga xam ne mooy mbooloo moo xam ne na saaba ya defoon seen diggante ak rasulullahi rek muy jaay jaay jaayante mhm, mhm. Euh, ay mbooloo moo xam ne ay mbokki taalibe la ñu yoo xam ne yu jaayante ak sëñ Tuubaa lañ mhm. loolu nag euh, yaakaar naa boroom xam-xam yi ñoo ma ciy gën a xóotal waaye li ci am solo mooy ñu xam ne ba mbooloo mi gimmee rek siyaar dafa bokk ci seen i mat yu ñuy liggéeyalee sëñ Tuubaa ndax lépp it dañ koy koy tënk ci baatu liggéeyal sëñ Tuubaa daanañ def at ba at ñu fexe ba sàkk bés boo xam ne ginnaaw buñ ci amee ndigalu sëriñ bi loolu ah. nag dalee ko ci jamono yu Cheikh Abdou Lahad mhm. di dox ba ba muy yegsi ci mu doon institution jamono yooyu daayira des étudiants mourides la tuddoon mhm. nga xam ne dañ daan def at mu jot ñu mhm. tànn benn bés ci ndigalub sëriñ bi def ko siyaar général loolu it daanaka noonu la seen liggéey tàmbalee woon nga xam ne mag ñi nga xam ne ñoo sos yëf yi euh, dañ daan def euh, bés boobu kenn ku ci nekk loo am ak loo mën mm-hmm. nga boole ñu dajale ko ñëw siyaare sëñ bi ngir firndeel mm-hmm. seen jaayante googu nga xam ne moom lañ jaayanteeg sëñ Tuubaa mm-hmm. loolu nag di dox ba ñi leen mujj fekki ba ci ndaw yi nga xam ne ñun nii biñ ci dikk ci statu boobu lañ dikkee uh-huh. loolu lañ nàmpe ci ci Hizbut Tarqiyyah nga xam ne euh, loolu it ndimbalub Serigne Touba rek la. Mm-hmm. waaye du loo xam ne kenn da koo da ko da koo waajalee boppam soog a ñëw. Mm-hmm. waaye dafa mel ni sëñ bi ginnaaw bu mu la dimbalee indi la ci mbooloo mi. Mm-hmm. ci lay nit ci sa xol lu tax nga xam ne lii mooy yoon bi. loolu nag dafa mel ni ku mel ni Cheikh Abdou Lahad ci ay jàngaleem. daana def euh, di di di firndeel lu mel noonu diggante Serigne Touba ak yonent bi. ndax euh, ñëpp ñuy dox ci kaw suuf mm-hmm. ndimbalu suñu borom rek la ñu bëgg ak yërmandeem ndax ku ne ginnaaw bu gëmee yàlla gëm nga ne bés penc am na gëm nga ne faatu am na gëm nga ne ajjana am na gëm nga ne safara am na waaye ñun ñëpp bëgg nañ dem ajjana sëñ Tuubaa nag li tax muy ku jara siyaare mm-hmm. moom moo mat a wax mm-hmm. ndax moom ci boppam wax na ne euh, euh, rawukaay la làqukaay la te képp koo xam ne bëgg nga tawfiix ci àdduna ak alaaxira ñu ngay ñëw làqu ci moom loolu ginnaaw bi mu ko waxee kon Hizbut Tarqiyyah dafa inscrire woon boppam ci dynamique boobu ba ba muy doon institution nga xam ne bu njëkk ba xëy na dajee guddi àjjuma ak dajey siyaar mm-hmm. annuel moo nekkoon seenub liggéey mujj gi biñ demee ba tëral ko muy daara nga xam ne dootul daayira mm-hmm. euh, foofa nag dafa mel ni baatub liggéeyal sëñ Tuubaa fa la gën a fëse ndax liggéey bi dafa diversifié wu dugg ci ay domaines yu bëree bëri bëri mhm. waaye lépp tënku ci ndigalu ki fi toogal sëñ Tuubaa mhm. ndax euh, ci isbu tarxee moom mhm. gone gi nàmp tey sax xam na ne ki fi toogal sëñ Tuubaa jëmmi sëñ Tuubaa la nga xam ne kon noonu la ñu wéyalee euh, liggéey bi yaato yaatu yaatu waaye terewut li muy yaatu yaatu yaatu at mu jot danañ sàkk lay wu tax ñu jël bés boo xam ne mbooloo mépp day daje ñu ànd dem ci sëriñ bi ko ñoo ngi nii ngir njëriñ yi nga xam ne yëpp moom la fi ñoom sañ Pape Assane wax ak sëñ Lamine njëriñ yooyu yëpp ñu sàkk ko hmm. waaye it rafet njort ne danañ ko ca am loolu nag dox na jóge ci sëñ Ablaat jaar ci sëñ Abdou Khadre hmm. mbooloo mi siyaare na ko hmm. eh, jaar ci sëñ Saaliw nga xam ne diirub lu mu fii ne def yaakaar naa eh, ku ne gis na siyaare yu ràññi ko yi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah daana ko def nga xam ne sëriñ Saaliw moom moo doon borom daa daara yi eh, Hizbut Tarqiyyah yeggoon nañu ci bu ñuy waajal siyaare sëñ Saaliw lépp loo xam ne xel dem na ci. Mm-hmm. lu ñu mën a am. ak fu ko mën a amee. Ah, ci loo xam ne jàpp nañ ne mën nañ cee dab mbégum sëriñ bi. Mm-hmm. moom suñu ba kenn du ko fekk. Uh-huh. noonu ci lañu doxe ku ne dana ko gis ci archives yi. Mm-hmm. ba ci sëriñ bi seede yi mi seede. ci suñu digganteeg sëñ Tuubaa ak soññ yi ñu soññ ci xam ne ñi ngi ci yoon. te euh, bu ñu amee ci ndimbalu borom béy ci yoon bi ba sax ci ba wuy ci suñu borom lu ñu yaakaar ci sëñ Tuubaa lañ fay fekk moo koy raw fuuf loolo nag euh, ginnaaw sëñ Saliou it gis nañ ne sëñ Modou Lamine baara bi mu fi toogee euh, suñu siyaare biñ ko njëkk defal defe naa siyaare la boo xam ne moom it date la bu ñuy retenir ci an ci agenda wu yoon ginnaaw loolu it siyaare waat lañ ko fii ba ci siyaare bi ñuy siyaare yi ñi siyaare boog ci jamonoy euh, Cheikh Sidi Mokhtar. moom it ku ne gis nga siyaare yooyu ak seede yi nga xam ne ki nga xam ne tey jii moo fi toogal euh, moo mooy mooy moo yore baatu. Euh, xalifu général muy sëñ Cheikh Bassirou Mbacké mhm. dégg nga kàddu yi nga xam ne naka jekk moom la Cheikh Sidi Mokhtar daan wax mu jottali ko mbooloo mi te loolu lépp doon rek loo xam ne daf ñuy son ñu ak di ñu gën ñaax ci ittey siyaara bi mhm. ñu gën cee lu ngir njëriñ yi nga xam ne moom la làmboo ñu mën koo jot dëgg la Cheikh Mountakha nag mhm. diggam ak Hizbut Tarqiyyah mhm. defe naa wax ci daanaka mooy yokk xar mi karaw waaye ñëpp xam nañ ko <laughs> euh, moom suñu digg ak moom uh-huh. moom ci boppam moo ko tënk dëgg nee na du man ah. du yéen ah. sëñ Touba loolu nag yaakaar naa <laughs> ku ko xas wax ah. doxalee sëñ tubaa suñ digganteek moom wax dëgg neex yàlla li ñuy wax challenge mm-hmm. te ji amul fu ñu ko yemale mm, lu lu lu xel mën a xalaat ci loo xam ne mën naa dab mbégam mu ñu mën a may ngërëmal sëñ tubaa mm-hmm. yégal ne danañ ko ko yóbbu ajuñu ko nag ci lim mm-hmm. ndax sëñ Touba Euh, nit mënu koo defal lu tax mu mu mu mu mu mu dab àqam. waaye dangay def sa sa sa sa yi li ngay def sa kàttan yem sa yéene sa yéene mën laa mën laa mën laa mottali moom mi nag dañoo ànd ak moom tey ba mu toog jotaayu sëñ Tuubaa ndax euh, ànd bi ci ci ci ay firnde yu bare bari bari ci boole gi ñu boole bi ñuy sëñ Tuubaa booleeg moom dafa am lu jiitu sax muy toog jotaayu sëñ Tuubaa waaye ba mu toogee jotaayu sëñ Tuubaa ca la wax loolu kon tey ñun suñu ittee mooy ñu won àdduna sépp kii nga xam ne tey moo toog jotaayu sëñ Touba mooy kan ndax bu ñu d'accordee ne mooy sëñ Touba rek mhm. ñun lañu war a mën a yóbbu ci moom mooy lu nit ñi wala àdduna si mën a gis ba xam ne am nañu ko kenn amul te mhm. mooy sëñ Touba mhm. loolu nag euh, jikko la yar la comportement la ndax Euh, sëñ Touba ni muy def ci nit ba mu doon nitu àjjana ñun dañ ko dañ waruñoo yem ci di ko wax dañ koo war a wone ci jëf nit ñi gis ko loolu nag ajuwul ci lim boo koy jox mi ngi aju ci jox gi koy jox sa bopp ndax kat sëñ ci ay waxtaanam te lu ci bari ci suñuy waxtaan ñu ci sukkandiku ndax tegtal gém ñuy tegtal dafa waxoon ne euh, liggéeyal sëñ Touba bi ma wax ne ne sëñ Touba mi tax ñuy liggéey euh, ngir laabire ñu mu ne la tax mu ñuy woo ci ñu liggéeyal ko nee na sëñ tubaa ci boppam bi mu dikkee dafa wonew yoon ndax ñun dañuy wax ne dañoo jaayanteeg sëriñ bi kem ni nga xam ne noonu la saaba yi jaay jaayante woon ak Rasulullaay sëriñ bi moom bi mu dikkee rek comme ni ko sëriñ sëñ Ablaat waxoon du du ma mën a jaaraat ci ni ni mu ko waxee woon waaye mën naa ko tënk ndax dafa ne sëñ bi moom bi mu dikkee rek wasixtu bi rabbil arshi zil juudi wala maal Moustapha nee na lool la wax nee na euh, wone ne digg yàlla ak yonent bi boolewu ci leneen nee na ba ci yàgg mu ne mu teg ci ne wasixtu maal muxtaari billaahi waxduhu mhm. nee na wone ne moom léppam tënk na ko ci ne kattiw sax la wax ci yàlla ak yonent bi nee na waaye yemut ci loolu ah. dafa dox ba ci yàgg mu ne wala cu xadiman fi mu ci taax yi wasilati ah, nee na waaye waaye waaye nee na mu engagé ah. nee na engagé nag li mu ca teg mooy mm-hmm. loo loo dugg te dootoo dellu ginnaaw maanaam loo dugg te dootoo dellu ginnaaw loola <laughs> ba muy waxtaan ci waxtaanu saaba yi mhm. jaayante woon ak rasulullaay mhm. dafa fa la firndeeloon ne loolu mooy engagé mhm. dañ ne suubu maanaam dañ lay dañ ne aaya alxuraan ba nu ko indee inna laa mu ne mun a dañ koy jo dañ koy jox suñu bakken ak suñu alal mu warlul ne dañ dem àjjana ndax nee na saaba yi ginnaaw loolu ñu ngi ko def ginnaaw bi ñu xamee li suñu borom digle ñu di ko def xam li suñu borom tere kenn du leen ci seen waaye taxut sax loolu. doy leen mhm. dañoo ñëw ba ci yonent bi rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam ne ko daje ku mel ni yow jamono. Mhm. li gën a wóor. ci li ñu jàpp ñun. mooy jox la suñu bopp. Mhm. jaay la suñu bakkan ak suñu alal. nga war lu ñu ñu àjjana yonent mi leen aw ma tontu la suñu borom a amee tontu la suñu borom yebal aaya alxuraan mu ñëw tontu leen. waaye sëñ Tuubaa ginnaaw bi mu engagé noonu. sëñ Abdoulaye da cee tegaat ne sax dafa ne wala tu xadiman fi mu ci daa yi muhammadan mhm. nee na gën a tee engagé na nga xam ne kon moom dafa mel ni dafa engagé ba pare wax saat engagement bi pour wane ne rek li muy bëgg lépp ci engagement boobu la koy amee mhm. loolu nag sëñ Abdoulaye bi mu koy wax waxuñu pour nettali xisa mhm. wala histoire daf ñoo won yoon wi nga xam ne moom la sëñ Touba wane nga xam ne tey ku toog jotaay bu sëñ Touba rek mbooleem ñi nga xam ne ñoo jaayanteeg sëñ Touba jox ko seen bopp ànd woowu la ñu war a àndeek kooku li ma ci jublu mooy xam ne sëñ tubaa ni ko sëñ Abdou waxee dafa dafa dafa wax ne sëñ tubaa ci biir loola dafa dem ba yegg ci mu ne yët yi wa lisaan yi maa fuwaad yi maanaam kon ku dem ba toll ci dara jooju maanaam kuy woote mbir mu mën a doon mu jëm ci yow wootewul ngir lu yëwénal sa mbir yow mm. waaye dafa woote ngir jëriñu mm. ndax fa mu yeggoon nee na yegg na ci eh, hadayta nii bi rasulullahi yaa maliki aslahtu kulli bilaa ixlaanin ixdaami kon foofa nee na ku fa yegg nee na kenn mënut a wootee lu yéwénal sa mbir ndax suñu <laughs> borom yéwénal na si lépp dëgg la ci lu wér ci dëgg ah, kon mhm. baatu liggéeyal sëñ Tuubaa boobu tax ah. ñuy woote ziar mhm. sëñ Abdu Lahat bi mu ci teg mhm. moo mat a dégg ndax dafa ne sëñ Tuubaa ba mu yeggee foofu dafa wax ne hadiyatullahil muhin saa xat li xayri yàlla hin wala wallaahu billaahu yuhin man saawu fii hadi nee kon ah sunu borom dina dimbali ci moom ku ko soob tey ak ëllëg mhm. waaye lama ma tàmbalee rek ñun ñëpp ndimbal dong lañu bëgg ah, ak yërmande ah, gunu may taw féex ak ah, xéewal ëllëg sëñ tubaa sunu borom loolu da ko jël teg ko ci loxoom kon isbu tarxiya fii mhm. tawféex la ci boo fi dikkee bokk na ci liñ lay jàngal. nga xam ni liggéeyal sëñ Tuubaa mën na la may njëriñu àddina ak àllaaxira kon moo tax loolu mooy wàllu siyaar bi mm-hmm. ci niñ koy defee tàmbale ko ci jamono yi Seex Abdou Lahad kon ba tey waaye siyaaru ren bi mm-hmm. particularité rek laay mm-hmm. wax ndax xëy na ci wàllu organisation dinañ créé yeneen jotaay yu ñu ci waxtaanee waaye particularité siyaaru ren bi dañ koy àtte ci teyu sëñ ju ne day gàcceel démbam ak ëllëgu sëñ bu ne day moo tax ñu xam ne kon comité directeur lañ teg ci njiital responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah muy sëñ Youssou Diop mu ànd kook secrétariat général ak mbooleem responsable lu poul yi mm-hmm. ak axe loolu organisation interne la boo xam ne xëy na du jar ma ciy sore ngir euh, bañ a guddal kàddu bi waaye ñu xam ne comité directeur boobu lépp lu aju ci stratégie ak réflexion ak orientation boo xam ne mooy tax siyaar bi demee ni mu war a demee mm-hmm. comité directeur boobu moo koy génne boobu ba tey ci euh, liggéeyam euh, yilif benn comité de pilotage boo xam ñoom ñoo gën a opérationnel. Mm-hmm. kon comité de pilotage boobu it euh, sama kenn ci suñuy responsable ku ñuy wax ah. sëñ Xaadim Bamba Diouf moo moo ko jiite. Mm-hmm. ànd ak ay commission yu ne. Mm-hmm. commission yi nag bàyyiwul benn domaine. du wàllu aménagement du wàllu restauration du wàllu wàllu yëpp. côté boo jël rek am na ay jëwriñ yoo xam ne dañu jël personnel bi nga xam ne loolu mooy seen liggéey ci daara ji mhm. ci ñu nekk ci mbooleem daara isbu tarxiya ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ñooñu liggéey ci plan d'action boo xam ne moom la ñuy songee événement bi mhm. ngir am ay objectifs yu ñu leen fixé te ñu war ko atteindre kon loolu mhm. mi ngi dox boo ko jëloon tey ci misaal rek boo demee kër sëñ Touba gi ñun ba ñu xasee am ndigal ci bés bi rek ci la aménagement bi tàmbale tey jii jii jii ku dem kër sëñ Touba bi ay structure de grande porté mhm. tàmbale nañ koo liggéey waaye fas nañ faa def noo xam ne ku fa dikk mhm. d'accord ne mhm. am nañu ku kenn amul dëgg la dëgg waaw kon daal ñu xam ne daal du ñu bàyyi benn moyen du ci benn fànn it uh-huh. ñu xam ne Hizbut Tarqiyyah moom uh-huh. euh, challenge bi daal uh-huh. muy itte ji dëgg la amuñu fu ñu ko yemale ba ba ñuy jàkkaarloog moom rek ne ko mbàkkee noonu jërëjëf sëñ Ibrahima Keita ñu ngi bu baax a baax yaakaar naa leeral yi euh, matale na Euh, te it euh, am na solo lool wax dëgg yàlla euh, kon ñu jàll rek ci sëñ sëñ Modou ni ko suñu Ibrahima waxee ñenn ci téléspectateurs yi nga xam ne si dañuy suivre Almouridiyyah tout le temps ñaan dañoo jékki-jékki rek daal di gis bande bande bi ah, ñu ne ñu ne am nañ ziara boo xam dañ koy amal le 22 le 22 soreetul de diggante bi mel na lu xat ci ñoom. yéen nag dafa xat na ci yéen teeloon ngeen koo xam waajtaay wi eh, ak coordination bi ngay xam ne si yéen a ngi koy coordonné par rapport ak yeneen daara yi eh, ak nga xam ne si ñoom ñoo nekk bitim réew ak ñi nga xam ñoo dëkkee waa Touba ñoo dëkkee Touba eh, te nekk ci yeneen daayira xëy na wala ñu bëgg ñëw wala ñu bëgg a barkeel wala yu demee noonu loolu yëpp nu ngeen koy nu ngeen koy nu koy doxalee liggéey boobu. waaw jërëjëf sëñ Kébé mm-hmm. ñu ngi santaat sëñ Touba bu wér. Mm-hmm. di dellusiwaat rek ci li nga xam ne ni moom nga wax ndax boo xoolee bi ñu duggee ci wàllu liggéey bi mhm. weeru koor gi day ciy am liggéey bu mag bu ñuy seq ak sëñ bi loolu yaakaar na àddina sépp ñu ngi koy suivre loolu ñuy def ci wàllu programme xasida yi nga xam ne nii mhm. biir réew mi mhm. mboolem daara yi ñu ci am daara ju ci nekk dan ko tënkee noo xam ne nii euh, ñaari kuréel dana ñëw par bis diiru fanweeri fan ci biir réew mi lañuy jóge yi Touba lañ nekk yi ci des ñu ngi ci biir région yi ci biir réew mi organiser nañ ko noo xam ne nii kuréel gi gertalu sëñ bi ak di ko gunge bokkut ak kuréel gi koy jàngal ci biir mbaar mi loolu ak programme budget bi nga xam ne nii mooy jël programme ramadan bi ndax ku na xam ne ramadan moom lañ ciy seq ak sëñ bi day liggéey boo xam ne nii du nakk liggéey bu ñuy cof te leen lu ci lim gën a doon qualité la ñuy wut loolu mu daan wéy ci saa su ne lii ñëw dal ko wàcc waaye suñu xoolee fi ñu jaar ak liggéey bi Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké yàlla na ko sama borom may kattan ak ak wér ak fan gudd lool euh, ni mu am yéene ci Hizbut Tarqiyyah nga xam ne ni waxtu wu ne mi ngi koy fësal di ko wane ak lim amee lim am lim yéenee ndam luy lu sax dàkk ci lislaam gi ak nit ñi gind ko ci sëñ Tuubaa ak gind ko ci ci ci ci lislaam loolu waxtu wu ne mi ngi koy wax di ko jàllale ak fu jàmm jógee rek fu mbir jógee rek mu fexe ba jàmm euh, agsi fa ci saasa mm-hmm. loolu suñu borom defal ko ci tew tawfeex moom nag bés bu set mi ngi xool liggéey bi mhm. di ko bàyyi xel di ko saytu ñu ànd ak euh, suñu jàmbaar joo xam ne nii mhm. muy sëriñ Atou Diagne mhm. ñi ñaan suñu borom euh, di wàcce waxtu wu ne euh, ngërëmam ak yërmandeem ci kawam ndax lii di daara ji moo ko samp ci suñu blaat moo ko jël jël ko jiital ko teg ko na ko wéyale liggéey bi mu toq nit ñi ci pas-pas toq leen ci wéral toq leen ci liggéeyal sëriñ Touba ci loo xam ne nii amut looy def nëbb ci ginnaaw waxtu wu ne pësteef ak yitte ju leer rek ci ngay dox loolu mu mu ngawee mu gawee ko liggéey bi euh, ba suñ borom dogal li mu dogal ci moom ñu ñaan waxtu wu ne rek suñu borom di wàcc yërmandeem ak njëgalam ci kawam te itam waxtu wu ne lii nga xam ne nii mooy yéeneem ci liggéeyal sëñ Tuubaa li koy wane li koy prouvé mooy mooy doxalin wi nga xam ne nii ñu ngi ciy doxe jëwriñ daara ji nag muy sëñ Youssou ku xam ku ko xam ci ak njàmbarte xam ko ci bëgg sëñ Tuubaa xam ko ci wéral noonu la toppe woon jëwriñ daara ji toppin woo xam ne nii dangay dem ba yaakaar ne maanaam kii xamul dara maam bëggul dara te loolu mooy ab ànd mhm. noonu la àndoon ak jëwriñ daara ji xam-xam bi fu mu mënoon a toll rek. moom bu bu xasee teew ci kanamam rek xamatul dara. te loolu dafa dafa nekk lu am solo. Mhm. waaye njàmbarte gi li lay wax ne la sëñ Tuubaa moom. Mhm. lu mu xas jàpp rek. loolu mun mooy loolu. Mhm. bu Cheikh Mamadou Mountakha ñëwee boo xam ne ñu yuusoo ànd leen ngeen wéyal liggéey bi. ñu dugg ci weeru koor gi ak weeru koor gi li mu li mu li mu ëmb ci ay liggéey. boole ko kër xasida yi li ci nekk ci liggéey boo xam ne nii. Eh, domaine ya gën a jafe. bi mu ñëwee li mu wax techniciens yi ak ñiy taxaw liggéey bi sànc bi day leen leen lu ci ne moom comme programme bi génnoon na ko teg ko leen lu ci ne ne yéen au sommet na ngeen ko gënoon na mu gënoon a baax tam waxoon ne nii lañ koy defee mhm. loolu moom boo leen ci amul loolu ci yokk loolu moom nañ ko teg ci yitte ji nañ ko teg foofu mhm. te moom laal suuf loolu moom loolu mooy programme bi mu leen jox di leen ko évaluer nag chaque jour mhm. ñu def mu compte rendu yu leer programme ramadan bi ñu jël ko di ko dawal ci biir loolu nag mu jàpp ci ziar nga xam ne kon jàmb njàmbarte gi nga xam ne nii Seexul Xadim jëwriñ daara ji moom ànd naa moom ci njàmbarte googu ak pëstéef googu moom loolu loolu loolu loolu la indi teg na dañuy ziyaar ji sëñ bi bu ñu génnee weeru koor gi rek mm-hmm. nañ jàpp ziyaar bi rek def ko mm-hmm. loolu itam euh, euh, comme moom euh, sëñ Tuubaa lañ bokk yaakaar mm-hmm. bëgg ko gëm ko yaakaar ko te bëgg na ne bu ñu fay dem nañ fexe ba nañ yóbbu lañ fa yóbbuwoon de mhm. liggéey bii tànk kanam la am mhm. te ku ne xam na ko ah, ni ñu ànd weeru koor gi lépp lépp lu doon togg ci ay mbir dañ koy yokk mhm. ci fànn yëpp bi duggaatee ci programme bu ziar bi itam noonu la wax ne nañ nañ lépp lu ñu rek nañ ko yokk waaw am yéen jooju te sëñ Tuubaa moom mi ngi ciy def tawféex yu yaatu yaatu yaatu ndax li lay xam ne liggéey buñ nangu la bañ ko jàppee ak léegi yàggul de waaye moom bu ñu sëñ mu taxaa ne woon xam maa ne léegi dañ ko jàppoon samedi mhm. waaye le 22 bi mhm. waaye nañ ko def euh, suba wala ginnaaw suba mhm. xanaa kay délégation yi jógee ay dëkk yu sori waaw ñooy tardé waaye la ñuy def moom la yóbbu moom la ñuy daal di ñëw toog ci moom indi addi ji kon loolu mooy feex joo xam ne nii sëñ Touba moom moo ko def ci biir liggéey bi mooy liggéey boo xam ne nii borom moo ko tiim di ko lijjanti. dëgg la yàlla nañu sëñ Tuubaa defal tawfeex ñu àgg si ak jàmm ak salaam. bu ma bu dee ci daara yi nga bëgg itam. waaw waaw loolu laa loolu laa bëgg. maanaam organisation waaw waaw daara yi ah. boo xam ne nii. Mm. xam ne ne lépp li muy def moom ko dañ ko nos. Mm. seen lépp dañ koy tënk. biir réew mi mm. am na CCR nga xam ne ñoo yor wàllu coordination biir réew mi loolu man lañ ma dénk euh, bitim réew. am na ci itam CCE nga xam ne ñoo yor wàllu coordination ñu jëm ci wàllu bitim réew. nga xam ne boo ko jëlee bu ñu gënee dañ naan Afrique. Mhm. donte Sénégal ci biir Afrique la nekk. waaye Sénégal dañ koy teqe moom. Mhm. d'accord mu tuddee ko CCN e ñu yor daara yi biir réew mi. Mhm. jël Afrique continent. jël mboolem daara yi nekk biir Afrique boobu. jël Europe. jël Amérique Asie. ñooñu ñëpp ñu jël leen am jël ay jëwriñ yoo xam ne ñoom lañ koy dénk mais dañuy jël kenn muy seen élément Sarr ne ko yow yaa koy jiital. d'accord nga xam ne ni bitim réew ñoom ñoo koy ànd léegi nag coordination bi day am mm-hmm. ndax Sénégal dañ naan ñun ñooy njëkk liggéey liggéey mu teel a mat ren nag Sëñ Tuubaa defal nañu ci tawféex ba ah, ah. Sénégal yëf yi yëngatoon na bitim réew mm-hmm. mais Sénégal la gën a la gën la gën neexe la gën a jaxe <laughs> kon loolu tam tax na ba <laughs> uh-huh. comme noonu la demee euh, yaakaar bu ñu ne nag dañu fee néewut moo tax ma may waxe nii <laughs> mais Sénégal la gën a jaxe dana ñëw ñoom dana ñëw sëñ Elimane nii di ma xool waaye dina ñëw incha allah léegi euh, la gën a ba tax na fi ñu toll nii tembe tembe tembe tembe mm-hmm. euh, baral nañu yëf yi ba fi ñu toll nii mm-hmm. ñu ngi sant Sëñ Tuubaa Touba bu wér génnoon nañ ko ci ñetti pël mooy pël nga xam ne ni mooy jël daara yi li jëlee euh, Ndakaaru mhm. wàcc ba Joal jàll njago ñaaw ay mbuur ak yooyu yëpp dinañ yóbbaale pël 2 bi mooy jël Touba mhm. dugg biir Mbàkke mhm. euh, génnaat dem Tiwaawoon jàll ba Ndar pël 3 bi tàmbalee ci euh, njaareem jël Bambey yóbbu Kaolack Fatick jàll ba Ziguinchor Kolda. Ah, waaw euh, Tamba yooyu yëpp da koy jëlaale. mu ñetti ah. ñetti poul yoo xam mm-hmm. mm-hmm. ne poul euh, la tëraloon rafetal ko. dañ koy sant ne la ziyaara bii nga xam ne moom laay dégg dama ciy bëggoon a barkeelu ndax waa Hizbut Tarqiyyah rek rek rek ñoo am possibilité joxe ci seen addiya wala ku mu neex mën ngaa ñëw joxe sa addiya nu mu demee foofu. xam nga lii nga xame nii moom lañ tàmbali woon ci ziar bi. Mm-hmm. ci joxe sa alal ci yoonu yàlla. waaw te Cheikh Mouhamadou Mountakha waxtu wu ne muy wax ne. Mm-hmm. fëttiku ci àddina. Mm-hmm. dëgmal suñu borom. àddina fii dara la fi tonawu. lu weesu liggéeyal suñu borom. amu fi. wallaahi dund. nga seeyal ko ci jaamu yàlla loolu rek mooy li am solo. te boo amee nag tawféexu sëñ Tuubaa wërsëgale la ñu am lii ñu am waxtu wu ne mhm. da ngay profité sa dund dëgg la mhm. ah, ndax booy dund dañ naan la ñaari taxawaay yi moo am mhm. sa biiru jëmm ak sa biiru bàmmeel sa biiru bàmmeel loo fa deful doo ko fekk sa biiru jëmm suñ borom waajal na ko la ciy dem moom waxtu wu ne dana ci ñëw dëgg la sabablu nag ak liggéey jaamu yàlla sax ci li suñu borom digle loolu de dafay lu mënta ñàkk waaye liy tax na ngay gën a bëgg sab sëriñ na ñàpp ci moom sa xel di jëm fenn loolu mooy jël sa alal ko di ko di ko di ko di ko def ci yoonu yàlla te doo ci yërëm sa bopp loolu moom amul ne tey jii laa koy wutal bis mhm. wala ginnaaw suba laa koy wutal bis da bis bu yàlla sàkk jëf jooju da nga ko war di teewal kon nag mu laaj nag engagement. Mhm. ndax lii sëñ Keita doon wax ci euh, walacc mhm. di ko wax ci jaayante. Mhm. te sëñ Abdoulaye Mbacke duñu ci duñu ci toqi di ko wax ba ñëpp di ko dégg. ginnaaw bu ñu saaba yi bi la waxee ne la ginnaaw bu ñu defee li ñu war a def lépp. di jaamu yàlla ni mu ko diglee. tere yi ñu bàyyi ko ni ñu ko defee. waaye dañoo dem ba ci biir ñu ne loolu doyatul na ñu jaayanteeg moom. rasulullah sallallahu alayhi ngir mu waraloon leen bu ñu faatoo dem àjjana. d'accord ko googu moo tax noppeetuñu moomatuñu amatuñu dara luñ moomal seen bopp. amul lu ñu moom lu ñu téye nii nañu ñoo ko moom. Mmh. amul suñ lépp Cheikhul Khadim moo ko moom. Mmh. ziar bii dañ ko ci xam nga dangay doxal ba mu yàgg nga nga rëppëtalaat. waaw ñëwaat rek ñëw taxaw na ko. <laughs> ñu ngi nii waaye bés bu set. <laughs> bés bu set ziar ndax loolu sëñ Saliou sax ma yëg waxoon. <laughs> ñu ngi yéen set bés bu set la ci ndax bés bu set yéen a ngi indi ay jëf ci man. wallaahi Cheikh Sidi Mokhtar nañu ah, bi ma toogee fii ci buntu fii ma toog ci kër sëñ Touba gi nii de lu mën a gën a yéeme seen i eh. ci bés bu yàlla sàkk seen i jëf ngi teew ci sama kanam. bés bu set jëf dina ñëw ci seen kanam. loolu itam boobu ba léegi nii. Mm-hmm. Eh, noonu rek la ñuy doxee. kon ziar bi moom suñ ko waxee. Mm-hmm. waajal suñ bopp amul luñ ci téye doomu aadama ci ne ko maam dañ la ko dañ la ko iñaanee. Mm-hmm. ñun suñ sañoon. kenn ku ne saa yu xëyee. ñëpp jariñ ah saa yu xëyee. liñ am lépp ñu dajale ko. indi ko Cheikh mu Mountakha. liggéey yi mu bëgg a liggéey. Mm-hmm. barke Cheikhul Khadim Mbacke. Mm-hmm. ñun nañu la war a jaayante suñ suñ biir. Mm-hmm. seey ci moom. li ñu am lépp ñu wax ko jox ko. ndax bu dee alalu àdduna la soo ko fi téye. waaw loo fi bàyyi dong la doon. Ah, ci lu wér ci lu wér te loo fi bàyyi moomatoo ko. Ah, bu accès ci say loxo dana la defal li war ci man. mooy jimma ci yoonu yàlla. soo ko defut day dugg ci say loxo. waaye da ko fi bàyyi mu jàll ci keneen. Ah, ci lu wér kam koy bàyyee. xamoo lan la ciy def. Mhm. bu ci defee lu baax. Mhm. da nga dañ la ciy dañ la koy bindal. loolu amul amul de comptabiliser suñu borom. comme agsi na ci yow koy def ci lu baax. mais soo ko téyee ba mu génn ci say loxo génn ci say loxo. Mhm. keneen ka ci des lam ci def moom. kooku moom lay jënd. nee na bu leen digle lu baax. nit ñi ñëpp góorgóorlu ci di lañ am di ko def ci yoonu yàlla. te yow di te yow defoo ko. dëgg la ëllëgee. da nga leen ñee ndax danga la nga doon wax ba kenn ku ne sonn ci loola lam am ci alalam lépp mu del ko sóob ko ci yoonu yàlla nga gis ne ñoom day mhm. suñ borom a nga leen defal ay teraanga te yow newoo foofu wallaahi wallaahi kon nag nañ góorgóorluwaat te xam ne mhm. euh, képp koo xamante ne bii bëgg ngaa ñëw ñu ànd liggéey bii mhm. jëwrin daara ji moom tëjul ay buntam ndax bi muy woote ci ziar bi dégg nga li mu wax nee na woo naa ñëpp mm-hmm. mbokk yi am di jàmm yi mm-hmm. ak ñu ñu bokk àndaloo di liggéeyal Serigne Touba mm-hmm. ñu àndoo dem waaye lii ñuy def nag armée la boo xamante ne bii euh, revue troupe mën na cee ñàkk kenn ko ne ñu génnal la mbir te li gën a yéeme nag bi ñu génnalee mbir kenn ku ne la nga war a def bañ ko demee demee demee demee dem ba am fuñ àgg ñu ci bëri moom dañoo wax ne yéen ñoom seen bilan zéro la <laughs> Ah. ñoom lañ tàmbali woon lañ leen lañ leen toppiloon ñu ànd ci di ci xeex ngir jëmi sëñ Tuubaa ba toll foofu ñu ci bëri ñoom ñoom ñoom baar nañ seen seen seen seen jëf yooyu ah, diggante juróom-ñaari fan yi muy diggante tey ah. incha allah ba ni ñuy àggee ci le 22 mm-hmm. ci mooy donaat soo bugg yees gi jaayante ak Seexul Xadim tëppatal lu ñu am ak mm. lu ñu mën ak lu ñu mënul mm. ñu dajale ko lépp jox suñu borom te xam ne moom rek moo ko yore wér na jërëjëf jërëjëf sëñ Modou ñu ngi lay waaw waaw waaw sëñ Modou dafa indi lu am solo loo xam ne Euh, dama ci indi benn leeral. waaw boo xam ne jëwriñ daara ji. Mhm. dina ko fàttali. mooy euh, isbu tarxiya. Mhm. maanaam amul kenn koo xam ne yebal mhm. na la fi barab. ne moo la yebal ci turam. ngir ngay laaj lu jëm ci ziyaaru isbu tarxiya. loolu xam naa dina ci baax. ngir ñi nga xam ne dañoo baax rek. te yaakaar sëñ Tuubaa. ba lu ñu gis. ci lu baax ñu dugg ci. ñu xam ne amul kenn koo xam ne isbu yi jox na la mandat. wala mu jox la ndigal nga wër ne damay laaj mhm. lu jëm ci ziyaaru isbu tarxiya dëgg la loolu précision la bu am solo mhm. ñi nga xam ne nag daan nañu ànd ak ñun ziyaar bi mhm. tàmm nañ ko am na ñoo xamante ni fii may wax ak yow xam nañu fi ñuy jaar ba seen jëf afek ci daara ji kon ñoo xam ne isbu tarxiya yàlla dimbali nañu ba néewaana barab booy dem ci Sénégal te doo fekk ñu am fa daara kon daara yi isbu tarxiya yooyu képp ko fa dem gis jëwriñ ja jox ko sa barkeelu ak sa yéene nga li nga am mu tàbbi ci ziar bi. Mhm. incha allah dana agsi dana texe ci ci dana tege ci loxol Cheikh Mouhamadou Mountakha. bu bu bu loolu weesoo it. Mhm. du ñàkk comme ñu bari ñu ngi koy sàkku. Mhm. dina am ay numéro yoo xam ne dinañ ko joxe ngir ñi nga xam ne xëy na dañuy nekk ci sori sa. duñu gis ko bokk ci Hizbut Tarqiyyah te am yéene. jëf ci ñu mën cee jëf. waaye ñu xam ne moom. li leer moom. mooy ñu xam ne amul kenn koo xam ne isbu tarixa yi yabal na la fi barab ngay laaj ci turam mhm. loo xamante ne jëm na ci ziar bi kon loolu muy précision bu am boo xam ne mhm, mhm. dañ koy wax ci turu jëwriñu daara ji ngir ñi nga xam ne lu mel noonu agsi na ci ñoom ñu mën ñu mën ñu mën ñu mën cee teey waaye daal daara joo xam ne isbu tarixa yaa ko moom ñu def ci enseigne isbu tarix ku fa yegg yéene joo am incha allah dana ak si ci biir la waaw mu ngoog yi bëri na loolu ndax mu mi ngi ci doon euh, lim ay ay daara yi nekk ci biir Sénégal donc fu waay mën di nekk rek mën ngaa dem ci daara ji la gën a jege soo demee da fa fekk jëwriñ ji wala nga fekk ñu fa ñu ko fu ñu ko fa teewal ñoo xam ne si mën nga a jox sa addiya ne lii mooy sama barkeelu ci ci ci ci liggéey bi soo bëggee ñu defal la ko ci ziara bi soo bëggee ñu defal la ko ci université bi foo bëgg ñu defal la ko fa euh, des na la ko fa defal incha allah loolu moo am benn jafe bu dee nga xam ne yéen nekk Touba ci euh, HLM hmm, moom it boo boo jëlee ci tali bi rek boo ñëwee ba HLM boo continuer ba ci guy gi boo wàccee foo daara ji laay ñu tegsal la bu ko defee nga ñëw mën ngaa yegg ba direction générale loo yor mën nga faa joxe ñu bindal la këyit bindal la reçu jox la bu ko defee nga tàbbal sa euh, saw ñax ci liggéey bi. yaakaar naa loolu moom it leer la bu am am am solo la xam naa kon dañuy daal di dellu si rek sëñ Papa Euh, yaa ngi woon ci bunt bu am solo muy li nga xam ne moom mooy ci islaayul euh, ziar ci boppam lan moo tax ñu war koo def ak ci euh, lan la mën a jural ki nga xam ne si moom mooy taali bi ci boppam maanaam kon muy njariñ muy bunt boo xam ne bunt bu am solo la moom lan lay jural ki xam ne jóg na te jëmmi suñu borom rek tax muy dem ziare ci ki nga xam ne si moom mooy xalifatullah fil ard maanaam mooy kilifa nu mu ko mën a jural ci ay njariñ sëñ sëñ Mour maa ngi sant bu baax kilifa yi ci eh, fi ñu jaar yaakaar naa ne eh, membre yi bu bu nekk yoral nga administration bi ak cant ndax may nañu occasion wu mhm. ñu jëriñoo loo xam ne njëriñu lu bari da cee nekk mhm. euh, njëriñu ziar sëñ Modou euh, dafa dafa yaatu mhm. benn ki ñuy ki fekkee damay nettali xisa boo xam ne dañ ko bind sax euh, Cheikh Mouhamadul Fadel mooy Serigne Fallou dafa jóg bis dem ci kër ku ñuy wax sëñ Mouhamadou Saxir Mbaye moom ba mu ba mu ko ba mu ko dalalee. Mm-hmm. mu bind ñaari béyit. ku ko bind Cheikh Mamadou Fall wala Cheikh Mamadou Sakhir Mbaye. d'accord moom kenn ku ne xam na ne nit ku baax la nit yàlla. ba mu bindee ñaari béyit mm-hmm. ndax jëmm ji ko fekki. Ah, sëriñ Fallou tontu ko ñaari béyit. njëriñu ziar mu ngi ci ci diggante boobu. moom dafa waxoon sëriñ Fallou ne ko. Mm-hmm. lillaahi qawmun iza xallu bi manzilatin xalla nada wa xallat fil jawi anwaaru tastaaquhum kula lardin yanziluuna biha ka annahum bi bixaayi lardi am taaru mhm. bi sëñ Fallou ñëwee mu mu gis ko rek mhm. mu ne ko sunu borom day am na ci kaw suuf ay mbindeef yoo xam ne mhm. barab bu ñu wàcc xalat na daawa xalat fil jawi anwaaru <laughs> naataange wàcc fa leer jolli ci jan ci ci asamaan si maam di ko doon léebu ne ko tey jii naataange wàcc na sama kër <laughs> leer jolli na ci asamaan si ma tiim ndax yow mi wàcc sama sama <laughs> kër daal wax ne ñoom bépp barab bu ñu wàcc. Mhm. suuf si day dekki ba mel ni bu yàlla tawee ni suuf si di dundaate. Mhm. nee na yàlla am na mbindeef yoo xam ne. fu ñu wàcc noonu lañu mel te bu ko woon ne ko ni nga ni ni ni ci nga bokk eh, neen sëñ Fallu da ko ne xaaral ma dolli la ci waay eh. daal dina ko isa laqitahum aw kunta zairahum bi yum ni faaraqtuka dahra aw zaara ñooñu dox ba dajeeg ñoom eh. neen ci seen barke la seen bakkaar waxuma ñu ñëw ci yow <laughs> isa laqitahum aw kunta zairahum wala nga jóg ziyaare ji leen mm-hmm. wala nga dox rek dajeeg ñoom mm-hmm. suñu borom jéggal la seen bakkaar ki ñu fekk ci ñooñ la bokk <laughs> kon xam nga loolu <laughs> fii fu eh, leer laa koy dëgg la ci wér na wér am loo xam ne sëñ Lamine ñëw na ci waaw sëñ Tuubaa moo wax ci xuqal bukaa u ne ulaayka xawmun laa yasqa jalisuhumu mhm. nee na sunu borom dafa sàkk ci mbindeef ñoo xam ne mhm. kuy toog ak ñoom texe di monte am kuy toog ak ñoom ku ne mhm, texee rek ngay def ah, laa yasqa jalisuhumu ndax lan is yokk si boonal muridina sahaadati seen yitte jëpp mooy faggul murit bi ak texe ki ñu fekk yit ci ñooñ la bokk eh, ñooñu nag mën naa la mën naa la mën naa la sëñ Lamin tudd na ko léegi mm. sëñ Tuubaa moo ko bind wax ne mm. fa nazratul hubbi min a cheikhi ila muridihi mm. hiyal mazaya wal la nee na xoolug cofeel ci ab sëriñ jëm ci ab dongoom nee na dina ko yëkk ci dara yoo xam ne bu tëju woon xalwa di jaamu yàlla sax ko am te kii ñu fekki kenn ku ne xam ne cofeel gi mu am ci ñun gëmëwu ko sax la wax gëmëwu ma leen la daan wax kon xanaa kon bu ñu ñuy dimbalee ñu dem fekkiwaat ko xoolu cofeel googu rek <laughs> doy na foofu nag dafa am loo xam ne sëñ Lamine junj na ko dama ko dama ciy dellusiwaat ngir dëgëral ko mhm. xam gis nga ziyaare ab sëriñ dafa am ñaari ñaari tuyaaba yu ci nekk mhm. yoo xam ne nit ki mun mun mën naa jàmm yàlla ay ba sonte du ko am mhm. mu xool la njëriñ da cee nekk nga xool ko njëriñ da cee nekk te nit ki lu mu gàtt gàtt ab gis bu boo jàppee ne sëñ bi gisal te mu ngi lay gis ndax yaral xafaaya bi xaynil qalbi ah. zahiratan ah, ñoom dañuy gis lu nëbbu ci nit ki mm-hmm. ni ñu gisal leer noonu lañ gisal lëndëm kon mm-hmm. bu bu toogoon ci mbooloo mi nii bu kenn jàpp ne suufe naa ci mbooloo mi ba gisuma mm-hmm. te bu la xoolee xooluk cofeel nee laal sëñ tubaa nee na loolu xiyal mazaya wal xula waaye yow sa bopp gis gi nga koy gis njëriñ da see nekk loolu sëñ Lamine junj na ko dafa am ci saaba yi ku ñu wax Hanzala la dafa am benn bis. Mhm. mu ñëw ci yonante yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay xel di daw. Mhm. ak si daal ne yonante bi naafaqa Hanzala. Mhm. ne ko Hanzala naafeq la moom boppam lay wax. waaw bi ne ko lu tax. mu ne ko ndax bu ma nekkee ci sa wet. li may yëg ci ab dox sama digg ak sama borom. bu ma génnee dem ci marché yi da dajeeg jigéen ñi xale yi day mel ni damay wàcc bu mel ni day mel ni ab naafeq la loolu daf ñuy dal. Ah, fi ngay jógee dem Dakar dugg ci <laughs> oto yi dugg ci eh, fu yow. li ngay yëg. Uh-huh. boo jegee ci sëriñ bi boo fi uh-huh. jógee xam nga ne uh-huh. ni ngay jege sëñ bi li ngay yëg foofu rek nga ko mën a yëg te loolu dara warul ko lu dul sa bët bi tegu ci jëmmam bu barkeel boobu yonte bi ne ko déedéet naa feqoo de li ngeen di yëg ci sama wet bu ngeen ko doon yëg yëg ci mbedd mi malaaka yi di leen sujudal ak di leen nuyu ndax dara ji ju kawe sëñ Lamine tudd am solo ab xoolub dong ci ab sëriñam mhm. sëriñ Basil wax na ko ci téereem boobu wax ne mbonaat day du nàmpal ay doomam du leen wutal yi luñ lekk mhm. xam nga bu bëggee ñu regg nu muy def mhm. daf leen di fóon ñoom ñëpp ñu suur eh, foon rek la leen di def seen biir fees del mu wax ne noonu la ab sëriñ di def ab dongo eh. lii ma la wax misaal laa la ci jox sëriñ Touba ak dongo yi ma àndaloon gànnaar sëriñ Touba nekk na gànnaar ci coono yu metti yoo xam ne daan na xëy donc yi mu nekkal lu dul tibub cere boo xam ne bu leen ko joxee suba la leen koy joxaat ak gën wàllu kaasu ndox amul lu ñuy dunde mm-hmm. te mosuñ ko yëg daan nañ xëy sëñ moo du diggan jamono joo xam du am du am dara lu mu leen jox mm-hmm. xam nga lu mu daan def dajale leen ñi ñu defa ab kuréel mu toog seen diggante gis gi ñu koy gis mën nañ yendu suba ba ngoon duñ xiif ndax lan tegee giseen ba tegu ci jëmmam boobu mm-hmm. ñu wax ne loolu lépp nag ziar da koy faggul ab dongo ah. mooy sëriñ bi kon bu xoolee nga dolliku yow boo ko xoolee dolliku boo toogee moom doo texee di ah, barab bu ñu wàcc barab ba day dund naataange sunu borom wàcc fa ah, waxaguma addiye ji nga koy jox bu fekkee mën naa si <laughs> del si waaw si waaye nan la ñuy nan la ñuy ziyaare ngir mën a am njariñ yooyu yëpp <laughs> ndax <laughs> waaw waaw ñu ñëw ci yaakaar naa ne ni li sëñ Moutiam wax am na ah, mooy fàkkoo ñun ñun ñi ba ñuy nee it di di doon xel yu ndaw baat boobu fii lañ ko jànge fàkkoo mooy li nga yor yëpp nga jox ko hmm. kon ziyaare noonu la ko mag ñi daan defee mooy dangay ngay am pas-pasu ki may fekki. lépp loo xam ne mën naa cee dàkk mbégam. naa ko dajale yóbbu ko. boo ko yóbboo nag lenn rek nga ci sàkku. mooy am ci ngërëmam. te danaa ñëw ci njëriñ yi loolu nga koy jox. danga koy xeeb boole ko ak i jooy. bu mu bari ba nga ba nga naw ko ba defe ne lii ma jox bari na ba déedéet. da ngay jàpp ne la nga bëgg ci moom ngërëm alal mënu koo jënd. te ngërëm ngay wuti. la nga bëgg ci moom ak texe mhm. texe alal mënu koo jënd alal jooju lim bari bari bari li tax nga koy def mooy mhm. jàpp ne moom ma dara moom moom lépp mhm. kon pas-pas boobu ngay demee mooy kii day boo mënoon dajale àddina ak li ci biram yóbbul ko dinaa ko yóbbu te ci ay jooy laa koy boole ndax mënumaa dab mbégam noonu mooy pas-pas bi ngay demee boole ko ak yar ak teggin yemalem tege loxoom mu tege sa kaw ak nga gis ko ci sa bët wala nga bokk ak moom benn jeetaay d'accord loolu yaakaar naa ne sëñ ñoom sëñ Keita dinañ ñëwaat ci teggiinu organisation bi mm-hmm, mm-hmm. bu boobaa nag fexeel ba lépp loo xam ne yéene la mm-hmm. booy ziyaara ji da ngay yéene yéene ju sel nga yóbbaale ko ñi nga xam noonu nga yóbbaale addiya ji nga xam ne moom nga war a yóbbu loolu yaakaar naa ne boo ko defee njëriñ yi nekk na ci njëriñ yu bare bare ndax dafa am sëñ Modou beneen boroom xam-xam boo xam ne bañ ba muy jàngalee ziyaar moom xaraf yi araf yi la jël pour wax la ziar li ci nekk ci ay njëriñ nit mën naa dugg xalwa jàmm yàlla lu nen nga def ah. nga dem ziar ji waaju baax tey mm-hmm. romb ko junniy at nga nga ziar ji waaju baax tey mm-hmm. romb ko ndax ndax lan mm-hmm. dafa am mbindeef yoo xam ne fu ñu toog fu ne suñu borom dafay def yërmande ku fa tabbi ku nekk mucc nga waaju bi ñu ko ne eh, wax ñu njëriñu ziar ngir tënk ko dafa jël xaraf yi zaay bi mu mu ne zaydun daal ni ku bëgg ndollent waaw demal siyaare ji waaju baax di nga dolli ko te ñu ñi ñëpp bëgg nañ ndollent waaw ci lu mm. daal di ne yaay bi mm. yaa yaa bi yaa bi ci tegu mu ne mooy yusrun mooy ak jàppandal mm-hmm. képp ku ne ci jafe-jafe mm-hmm. siyaare ji eh, eh. jërëm ba nga joxe la ñu sëñ waxoon ci ya mm-hmm. mooy dana def fu dara nekkutoon amoo dara ah. yoos tuuti yóbbu ko far mujj am siyaare da koy def mu tax mu ne yusrun alif bi mooy al ijaba talal nga sa loxo yaa rabbi di ñaan ba sonn mënoo mënoo am mhm. mel ni sa ñaan nanguwul nga dem fekki waaju baax la nga bëggoon réaliser wu nee na ku ko bëgg demal seere ji waaju baax rabbi mhm. mu ne mooy risqun mhm. yokku wërsëg waxoon na ne dana yokk wërsëg bari la ba néewoon barkeel la la bari woon te kon nee na ku bëgg wërsëg bu bari te yaatu te barkeel teg ci na demal ziar ji mooy risqu raa u ziar bi ta bi mu ne mooy ak tawfiq mooy la nga bëgg mébét ko di ko nisar mhm. nee na boo ci son demal fekki waaju baax mhm. bu la ñaanale wala mu xool la rek nga am li nga bëgg kon xaraf boo jël ci xarafu ziar sëñ Modou mhm. euh, waa ji def ne njëriñ a ngi ci ah, daa di commencé ci sara bi daa di wax ne ziar dafa am lu ci nekk fathul baa bi mooy fëgg buntu ma tëree ubbeeku mu tëree mu téye ubbeeku nga fekki waaju baax balaa ngaa dëpp sa buntu ubbeeku nee na am na ci ziar raful xijaabi xanil xal bi baax nga dem fekk mais nañ ko xool man moog dama ko yëg. Mhm. léeg-léeg na ma yendoo démb ji bu ma jàkkaarloog sëñ bi damay yëg ci sama bopp ak mbaax goo xam ne démb yëguma ko. wallaahi loolu ci ziar la bokk. Ah, def ne raful hijab hanil xal bi tilim tilim bi nekk ci xol. Mhm. nee na boo nee jàkk wax ju baax day mel ni dañoo fóot sa xol. loolu ci njëriñu ziar la nekk. sarful xasaab bi mhm. day tax mbugulub yàlla sori la. nasrul muminina halal ahdaay gis nga nii sëñ Modou Thiam ak sëñ Keita di di soññee. aw yet la ci noonu lislaam yi moo tax mu ne ziyaar ab yat la bu ñu dóor noonu lislaam yi dégg nga euh, shifaul shifaul qulubi mm. wa nuur wa nuuriha nee na saafara xol la leeral xol la ziyaar day leeral xol moo tax mu wax ne az-zaa'iru yutahiru lahu qalbahu wa qaalabahu kama yutahiru sawbal abyad min ad-danas mm-hmm. nee na waa ji dem siyaare ji ni ngay jële sa saabu fóot sa yére bu tilim mm-hmm. nee noonu la siyaare fóoti nit kon lii lépp ci njëriñu ziar la. Ah. ci teewaay bi te waxaguma adiya ji nga xam ne moom nga yóbbu li ci nekk ci ay njëriñ. <laughs> adiya ji daan daan kon yam waanil xal bi rey nañ xat ya <laughs> dani ma war mu xasile han bi najaas. teewaay bi rek. Ah, toog ak wetam. li nga koy jox nag leneen da cee nekk beneen beneen affaire la ko adiya ji beneen affaire la waaw kay mu ko aji euh, mën ngaa duggee foofu rek ci buntub euh, njëriñ yi nga xam ne si dana ko jural euh, aji ziyaara ji ak fi nga xam ne si fa la koy yéegal ak li nga xam ne it moom la koy tàqaleel dëgg la muy lu am solo xam nga tey sëñ Modou Thiam dafa indi ci wàllu soññee mhm. loo xam ne xoolal tey sëñ Modou fii jamono toll mhm. nit ñu bari mhm. jàpp ne jamono neexul wala li ñu yor moom wax dëgg yàlla doy na leen wala daal euh, nañu bàyyi ba jamono gën a neex waaye euh, ziar bokk na ci li nga xam ne da lay dimbali yow ci loolu su doon piège la nga bañ cee bokk tey Cheikh Mamadou Mountakha euh, dafa songu liggéey yu mag songu chantier boo xam ne fanweeri milliards ak juróom-ñaar la wax loolu nag dañuy gis ay état ay réew di ko songu muy të moom mu ñëw ne <laughs> waaw loolu sax xëy na nur na lu bari waaye sëñ Tuubaa moom dara rëyul ci moom kon kooku moo xam jamono waaye nag loolu dafa am lu ko weddi mooy liggéeyu raay bi ak Cheikh Mamadou Moustapha uh-huh. liggéey jumaa ji uh-huh. ak Cheikh Mamadou Fadal uh-huh. yokkub jumaa ji ak Cheikh Abdoulaat ak chantier yi nga xam ni yëpp ñi fi nekkal Serigne Touba def nañ ko ah, li dale ci sëñ Saaliw sëñ Abdou Xaadar ba Cheikh Mamadou Lamine Baara amu ci benn boo xam ne dañ naan ba ñu koy def fekk na Sénégal di taw or wala muy taw jama yi ci ëpp sax dañ koy def ci jamono joo xam ne nawet ba du mel na mu war a ngir xam ne na ko Cheikh Abdoulaat waxee woon mbay mu nangu xol yu nangu gën loolu tey sëñ Mourtada wax na baat bu am solo. Mhm. mooy futti mbuum àddina ni ko mhm. Cheikh Mountakha waxee. ci korite gi. Mhm. kon ziar bokk na ci li nga xam ni dina daggi murit bi fexe ba xolam. àddina génn ci. alal bañ cee bóof dox diggam ak sëñ bi. mu xam ne moom mii kat dafa war a def na saxaaba yi defoon lu ñu am jox nañu ko yonente bi sallallahu alayhi wa muy lu am solo tàmbali ci benn Seydina Ousmane. ba bisub tey dañu koy tudd la moom la ko ko mayoon mooy nii daara yi def rek mhm. lu ñu am ñu jox ko sëñ Tuubaa mhm. nee nañ seex nee nañ baar Baari Jenn doomu Seex Isaa moo ko mës a laaj maam sëñ Ibrahima Fall ne ko murit mhm. buy siyaare sëriñam nu mu war a def waaw nee na mu ne ko day mel nii rek daay gu jaar ci dëndal pël ci waxtu waxtu noor kon loolu mooy maan dafa bàyyi dara ndax day fekk lépp wow kong ci am ñax nga xam ne benn ferñeenti képp mën naa xëy faxas àll bi yëpp ba doo ko mën a xool ne ko buy ziar ne ko noonu lay def loolu waral na mag ñi ñoom noonu lañ daan def seen diggante ak sëñ Tuubaa li sëñ Asan di wax nag euh, tey dañoo dañoo borom xam ne dañoo wax ne alal dafa sax ci xol ba tax na nit fu alalam di dem xolam du fa jóg xelam du fa jóg xorom fa lay fanaan mën nañoo wax. tey ñi nga xam ne am nañu compte yoo xam ne tey waxtu wane bu ñu tëddee. Mhm. dëkk bañ ko denc. Mhm. buy buy buy buy taw glace sax dañ koy xam fi ñu toog. ci seen ci seen téléphone lañ koy xool. ngir li ñu gën a fonk lañ fa def. Mhm. lu ko yënga dañu koy xam. kon nag bu fekkee yow sa ñaq ak sa itte yëpp. dafa jëm ci sëñ Tuubaa dana la dimbali yow. ba dox sa digganteeg àddina. ci lu bëree bare leneen li nga xamante ne des na ci itam. te ñu mën koo jëlee maanaam. ci njariñ yooyu mhm. mooy taw féex yi li ngay am di ko yóbbul sëñ Tuubaa mhm. te loolu tey dañuy seet mhm. anak kan ngay tudd tey ci yoonu murit ak nu dara jàmm mën a toll ba mu weesale boppam loolu ah, kon dina tax nga xam ne ba tey yow yaa ngi ji li la boole woon ak sëñ Tuubaa euh, Cheikh Issa la ñu wax ne nee bi mu demee ba mag daraan soññ waa këram ne leen man de su ma delluwaatoon nekkaat ndaw mm-hmm. damay liggéeyal sëñ Tuubaa mm-hmm. ba sama ba sama yàpp yaram jaxasoog sama yax waaye ki doon def loolu nag mm-hmm. daan na indi àddiyee ci kër sëñ Tuubaa indi koo xam ne nee nañu sëñ bi day def lu mu romb mu ne ko bul fàtte Isaa kon maanaam kon ñun lañuy teewal ci sëñ Tuubaa mooy tey xamal ne tey membre Hizbut Tarqiyyah bu dajalee lu mu am ak lu mu amul ak lépp lu mu am xam àddina ni mu mel ak li ak ak li ci ne ak ak baax baax ak soxla yi mu ci war a am yëpp mu muñ ko ne naa ko jox sëñ Touba leer na ko ne loolu bu demee ci sëñ Touba dina ko ne bul fàtte diw su ko defee nag <laughs> la nga bëgg lépp di ko wut te mënoo ko am loolu fegal la dëgg la damaa mës a dégg sëñ Thierno Mbacke Gelongal di fat di soññee ne sëñ tubaa moo ko doon wax di soññee nee na addiyee de euh, xam leen ne ñëw gi muy ñëw ci man du ma jëriñ dara yéen rek lay jëriñ ah, ne ndax xam ngeen ne am na ci yéen ñoo xam ne ñu waroon gàtt fan lañu eh. addiye moo tax ñu gudd fan am na ci yéen ñoo xam ne ak njaboot sax waruñu ko woon am mooy tax ñu am ko eh. am na ci yéen ñoo xamante ne dañu waroon a ñàkk moo leen di tàggaleeg loolu am na ci yéen ñoo xamante ni sawaraa leen waroon lekk mooy dox seen digg ak moom am na ci yéen ñoo xamante ni suufa lay waroon lekk mooy dox seen digg moom di lim yu bari yi nga xamante ni mooy dox suñu digg moom kon loolu kon ki ñu koy jox moom ah dafa mel dañu ko waroon fay ba noppi dëgg la ngir mu ngir mu nangu ñoom ngir ngir ngir ngir li ci jëriñ lépp <laughs> la sëñ Tuubaa waxoon rek hëddiyatullaahi uh-huh. muhin uh-huh. saaxat li xayri yàllahin uh-huh. wala yowma billaahu yuhin man si awu fi ne ne yàlla dana dimbali ku ko man ku ko ku ko soob ci man tey ak ëllëg te gis nañ ni mu dimbali la mm-hmm. liggéey loolu dara dara gënu ko ci kaw dëgg la jërëjëf sëñ sëñ Mamadou Lamine Diouf xam naa waa régie ñu ngi may soññi ci waxtu bi nee li ci des bariwul dara dara dara mais bëggoon naa ñu seetaan benn extrait benn ziar boo xam ne rek Hizbut Tarqiyyah amaloon na ko ci 2011 euh, ci euh, Cheikh Sidil Mukhtar Mbacké bu fekkee élément bi yemb na mën nañ koo seetaan te dellu siwaat ma ñëw ci sëñ Ibrahima Keita ak euh, sëñ Mout Thiam laata ñuy tëj waxtaan bi بسم الله يا daara ci mboolem bànqaas yi moo am ci biir réew mi ak ci bitim réew amaloon na ab siyaar bu mag ki fi toogal Serigne Touba tey di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke yàlla na fi yàgg. te ànd ak wér mu amoon bisub gaawu juróom-benni fan ci weeru safar atum junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci ati gàddaay gi dëppook 31 décembre 2011. siyaare nag ku nekk xam na ni bokk na ci li ab murit di firndeele cofeelam ci sëriñam di li muy yeesalee pas-pasam di lim koy sàkkoo liggéeyal di li muy sàkkoo barke ak mucc te loolu lépp ñu wax ak yeneen yu am njariñ seexul xaddim dër na ko mboolem ko jóg jëm si ci moom di ko siyaare wala nga di ko liggéeyal bokk na ci yooyu lu siiw muy tàqale ko bàkkaarub tey ak ëllëg gi nga xam ni waruloon na ko waa Sarsara ak képp koo xam ne jóg nga ngir jëmmam inna lazina ila sarsaara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw zaara moom moomu seexul xadim moo dellu waxaat ni fa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw zaara wa kullu man ahabani aw maala ilayya farzuqu dan aw maala waxaat ba tey wajhu lazi yuhibbu ni yabyaddu yowma wujuhu shuhada tabyaddu ba ci di waqti hawaaiji lazina daamu fii xidmati wahum lahum maaraamu añikub siyaaru ren bi mënees na ko gisee ci dikkin wi waaye itam ci lu am solo ndax bi ñu agsee ci jumaa ji mag ji mbooloo mépp dañoo wàcc woto yi dox ak seeni tànk wër jumaa ji barkeeloo ko siyaare loolu lépp amee woon ci njàngum xasida moo xam ne dogul senn saa ci mboolem kuréel yi bàyyi ko ci daara isbu tarxiya yépp ñun sunu jaayante rek la yeesal moo tax ne ko mag ñi daan defee xool nañu xool defin defin bu ko gën jafe na nu nu nu nu te jaar ci seeni tànk ak fas yéene li nga xam ne jamono may nañu ko ci ay jumtuwaay ak i ak i xam-xam ak i xalaat ñu boole ko ci rek waaye xam ne joxe suñu bopp rek ñu xam ne keneen yilifu nu ko dul moom rek moom rek ñu bëgg. ànd ak njàngum xasaayit mi mbégte mi maase ci ñépp koo gis tey xar kanamam mën cee yëg mbégte mu wér ak fu mën a jóge muy membre walla muy gan ba ni Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke xalif général des Mourides accès ànd ak Serigne Mountakha Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir ci noonu jëwriñu daara isbu tarxi di Serigne Atou Diagne moo leen teeru siyaare ànd ak ñoom ñu jëm si ci mbooloo mi bi sëriñ bi agsee ci la jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah jël kàddu gi jottali siyaaru mbooloo mi fàttali fan la jëf ji ñuy def tege ak lan mooy jublu gi tey jii nii Hizbut Tarqiyyah dikkee ci kanamu kii fi toogal sëriñ Touba tey. ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la sant di la gërëm eh, nii nu ko jotoon na waxe rek bi nga xamante ne noo ngi woote siyaare bii. waxoon nañ ni ab murit bu jóg di dem siyaare ji sëriñam rawatina sunu xeet bii li ëpp ci nit ñi day naan ay daanukat rekk lañu ñu ngay dem ca sëriñ ba sunu yàlla mayee nga nekk fi tey di takk ndeeram yor caabi buntu këram war na noo ñëw ba nga xam ni bokkunu ca ña doon diir diital danoo ñëw jaayante si ñëw ba nga gis ni xam ne joxe nañ sunu bopp joxe suñu bopp gi ñu dëggal ko ci suñu alal ak suñu jëm loolu moo nu indi nga xam ne ay murit lanu yaakaar seexul xaddim ku ñu ne moo ko fi nekkal rek xamal ne yaa yor suñu buum yow na buum ngi suñu baat jox nañ la ko nee na kon suñu aatu yow mi nga xam ni yaag bokki taalibe yi ngeen àndal yéen a wajaral jataay bii tey eh, sëriñ bi mi ngi gën a yeesal ak cantam diggam ak sëriñ bi xam na ne ndax xam na ni sëriñ bi rek leen tax a jóg sëriñ bi rek moo leen tax a jóg moo waral seen bis bii tey moo waral seen bii tey liggéey muy defal sëriñ bi itam liggéey bii muy defal sëriñ bi itam xam ne moom la boole ak cant gi nga xam ni moom la boole ak cant gi seeral na seen taxawaay bi nga xam ne taxaw ngeen ko ci. nee na seere na seen taxawaay bi nga xam ni taxaw ngeen ko ci biir liggéey boobu leen. xam naa ne waxtu wu nekk. xam naa ni waxtu wu nekk. jekk ngeen ci gën a jox seen Serigne seen bopp. jekk ngeen ci gën a jox Serigne Touba seen bopp. jekk ngeen ci gën a dëgër. ci fas ni taxaw liggéeyal sëriñ Touba. jekk ngeen ci itam gën a fas yéene dëgëral ci taxawal liggéey sëriñ Touba. loolu sëriñ bi maa ngi jégalu bu baax. nee na sëriñ bi Cheikh Mamadou Taxa ne mi ngi jégalu bu baax. lu ma ci wax rek yàlla gën a xam. nee na lu mu ciy wax rek yaa ko gën a xam. waaye nag bokki taalibe lañ yoo xam ne. waaye nag bokki taalibe lañ yoo xam ne. dañoo aajoo ndimbal. dañoo woo ndimbal. am na yàqin bu wér na te am nañ yàqin bu wér li mën nga leen a dimbali ci li ñuy wut. mën nga leen a dimbali ci li ñuy wut. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal sëriñ Touba. ndax ku dëggal nga ci liggéeyal sëriñ Touba. kon nag koo ci bëgg dimbali rek mën nga koo kon nag koo ci bëgg dimbali rek mën nga koo dimbali. di yalwaanal ndimbal bu baax a baax. nee na mi ngi leen di yalwaanal ndimbal bu baax a baax a baax. ndimbalul biir ak jëf. ndimbalul biir ak ndimbalul biti. gën a mën a jox Serigne seen bopp. ñu gën a mën a jox Serigne Touba seen bopp. gën a gën a gën a gën a fas yéenee gën a lëggéeyal Serigne Touba. gën a fas yéenee lëggéeyal Serigne Touba. boo leen ko nangulee rek. boo leen ko nangulee rek. ñu xam ni Serigne Touba nangu na leen ko. Serigne Touba rek lañ lay xool te yaay Serigne Touba kon nag jërëjëf sëñ bi nee na nangul na leen ko noo gu noyyi rek. noyyi gu ñu noyyi rek. nañ ci yeesal suñu njëbbal. mu ngoog yaakaar naa euh, ñoo ko gisandoo ñoo ko it déggandoo. Mm. loolu nga xam ne moom la. Euh, kilifa yi jotali woon euh, Cheikh Sidil Mokhtar Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkaloon jotaayu Serigne Touba yàlla na ko suñu borom dolli yërmande bu baax a baax moom tamit gis ngeen Cheikh Mouhamadul Mountakha ni moom it toogoon ci wetam nekkoon jëwriñam Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy daayira Hizbut Tarqiyyah si ñëwoon ñu doon jébbale si di indi seen seen seen addiya euh, sëriñ bi nangul leen ko ca nanga nga xamee noonu la ñu ko bëgg yaakaar naa loolu nag tawféex dëgg la mu mel ne tamit euh, sëñ Ibrahima yaakaar naa yitte ji moom day gën a kawe rek maanaam baar li ñuy wax naan baar bi du wàcc daal baar bi moom du wàcc xanaa gën a yéeg lay def <laughs> waaw waaw wàcc moom du ko def mu am lu ma yéem it sëñ sëñ ci ci ci ziar yi ziar yi Hizbut mooy mënoon nañuy dem rek léeg-léeg yóbbu yóbbu koppar rek daal di daal di nuyoo sëñ nuyoo ko sëñ bi nga joxe daal di ko euh, waaye da ngay gis maanaam euh, ni ñu yeesalewaat seen pas-pas ci ci kanamu sëriñ bi euh, ak it maanaam façon addi yi nga xam ne moom la ñuy yóbbu nga xam nit ñi dañuy génn ci seen i kër di ko seetaan mu yéem leen lool lu ne da ko ciy gis lu ne loo xalaat lu ne da nga ko ciy gis yaakaar naa si mu jàmm ngi doon naa ko ci mel maanaam dara manqué wut waaw loolu loolu tamit maanaam yitte ju kawe jooju nga xam ne maanaam day mel ne suñu mënoon a summeeku sax dindi dindi ku ci ñaari mbubb sax dindi benn bi dégg nga dese benn wala nga dese ab survêtement sax da nga koy def maanaam yitte ju kawe jooju loolu nu mu demee noonu si waat ci ak ak ak ak addiye ji waaw euh, waaw wala euh, sëñ duggee woon ci wàllu euh, njëriñ li nga xam ne uh-huh. moom la addiye ji mën a jural ki nga uh-huh. xam ne moom uh-huh. moo jóg dem di siyaare ji bu ñu centré ci ittee ji tax ñu jóg siyaare ji mooy am tawféex ak ak ndimbalub suñu borom loolu nag yaa ngi koy amee ci dàkk mbégub sëriñ mën nga dàkk mbigub sëriñ bi ci lu ne ah. waaye mën ngaa indi lu yéemee yéemee yéeme ba nit ñi di ko yéem nga indi loo xam ne mën nga cee bañ a bàyyi xel ah. fekk loolu day ittee sëriñ bi ci jamono jooju ko waaw waaw dëgg la nga xam ne boo ci amee mbégam rek <laughs> ah. yow li ngay sàmm am ko nit ñi nag mën nañoo gis doyog li nga indi ba mu leen di yéem fekk yow la la nga amee ngër mbégum sëriñ bi bi lay may ngërëm li tax nga dem siyaare ji eh, eh. ndeke ci loo xam ne la yow mën nga ko sax bañ a foog eh, ndéem nag xamoo ci lan ngay amee mbégub sëriñ bi. waaw sëñ bi loo bàyyi rek. moo tax da ngeen di ramasser rek. ramasser rek nee naa la li fekk suñu xel yi mi nga mën a nàcc lu tax. ñu jàpp ne nangam ci yéeg buñ ko yóbbaalee jaada yéeg lépp danañ ci <laughs> danañ ci am ngër mbégum sëriñ bi sëriñ bi rek li suñu xel yaa ngi xalaat loo xam ne lii buñ ko yóbboo mën nañ cee am mbégum sëriñ bi rek eh. yëgal ne duñ ko bàyyi loolu nag bàyyiwut dara du ci mm-hmm. biir réew mi du ci mm-hmm. bitim réew ci loolu ma profité pour soññ sama bopp. waaw soññ samay mbokku taalibe yi ma mm-hmm. bokkal Hizbut Tarqiyyah ah. ñu xam ne ndimbalu Serigne Touba. Mm-hmm. ci la ñuy dox. loolu nag boo ko xamee. Mm-hmm. li sëñ Abdou Lahad doon wax nee na. Euh, mbir euh, suñu borom dana la defal loolu. Euh, sant ko. da dana dana tax. yow nga nga nga nga nga nga nga nga firndeel ne ndimbalu suñu borom nga am waaye am na neneen nooy def nu wutee ko cant mhm. de ak moo ko weddi suñu borom ñoo mhm. yem ku am tawféexu jamonoonteeg mhm. sëñ Touba nga xam ne li dalee ci moom sëñ Touba ba fa àdduna yem danga am jotaayu sëñ tubaa muy ki ko fi nekkal ku am tawféexu nag dund ci jamono jooju am occasion wu jóg dem di siyaare ji sëriñ bi mhm. sëñ bi waroo bàyyi benn moyen mhm. moo tax ma ne la ci biir Hizbut Tarqiyyah li mhm. tax may profiter pour rendre hommage d'abord suñu responsable moral bi dudd ñu sëñ nga xam ne ci nampatal ak ci toqi ak ci def itte ci murit bu bu bu gëm sëñ Tuubaa loolu moom icône la ci loolu ma koy waxal waa Hizbut Tarqiyyah yëpp ñu xam ne ñu ngi koy rendre hommage. te ni ko sëñ Modou Thiam waxee sànq ñu ñaan suñu borom waxtu nekk muy totti ay xéewal ak ngërëm ci kawam. Mhm. waaye di profité tamit di kañ. suñu responsable moral. suñu Youssou. ñu ñii ñëpp di kenn ku ci nekk sañ ngaa waat ne waxtu woo ko xoolee sa fit yokk. ci liggéeyal sëñ Touba loolu nag. sëñ Touba ko def. Mhm. ñu nangu ci dogalam. am pas-pas bu àndeek moom ci anam mhm. moom de moo ñuy demal. la mu nuy demal ci sëriñ bi. daf noo doy kenn waxtu wuñ ko gisee ñu ngi jàkkaarloog sëñ Tuubaa. Mhm. ndax mooy indi ndigal yi jóge ci sëñ mhm. Tuubaa. Mhm. gis nga. waaw nattooguñ ko mën nañu la ne ci asamaan si laa bëgg ngeen jëli pour mu dem ci sëñ barke Xaadim Rasuul. bu ko waxoon danañ ko jëli. kon pas-pasu membre yu bu Tarqiyyah goog. ñun ñu ngi ko at ci ne nangam. fu mu mën a ne ci kaw suuf. Ah. wala ci asamaan yi wala fu mu mën mën nga cee am mbégub sëriñ bi kon euh, ñu ñu ñu ñu profité kon di soññewaat. ñu ko sëñ Modou Thiam waxee woon ñu ne am na ñoo xam ne lanu waxoon ne moom mooy li leen wat ci siyaar waxuma la ci diir bu gàtt sax bu leen sëñ Tuubaa tawféexal ñu dóor ko waaye gis nga bi ñu yeggee ci soññante waat dañ ne ñun liñ defoon def nañ bilan zéro maanaam bindaat leen ñu zéro ñu tàmbalewaat ngir jëmaat tin li nga xam ne mooy li ñu tàpp tobbiloon nga xam ne kon mi ngi mel ni la la la la la la la la la sañaatu doon wax ci liggéey bu ñu sëñ tubaay liggéey lu amoon journaliste bu koy laaj yéen maanaam lu leen jaral mu ne ko mi ngi ñu jaral kem ñu gis ni ko sëñ bi bëggee xam ku ko mën ñu fexe ba mu am nga xam ne kon challenge bi amul fu ñu ko yemale du biir réew mi du bitim réew ñëpp kenn ku ci nekk du guddi du bëcc du suba ngoon amatoo itte waaye nag li ñuy li ñu bëgg insister muy nit ñi xam ne ci dëkk bii di Touba la ñuy siyaare nit ñi xam ne seexul xaddim la ñuy siyaare ji te tey jii jotaayam di Seex Muntaxa la ngay sàkku càkku ca ni nga koy sàkkoo moom la nit ñi war a bàyyi xel ngir gànjaruk lislaam la dañoo war a fexe ba ay yar fees ko dell. Mhm. ay teggin fees ko dell. ba bu ñu àdduna sépp di xool xam ne. Mhm. ay nitu lislaam a ngi nii. ay murit yu yaakaar sëñ si ngi nii. Mhm. ndax ñun loolu rek la ñu mën a wone. waaye li ñuy jox sëriñ bi. sëñ Lamine dafa am misaal bu am solo boo xam ne mën naa tënkee ci loolu mu yem ca dafa ne gis nga ki ñuy siyaar yi lim ñuy jëriñ mhm. dañ ko waroon fay ba noppi mu nangul ñu ñuy siyaar yi <laughs> kon ma tënk foofu samay kàddu xam ne rek uh-huh. euh, suñu jëwriñ sëñ Youssou uh-huh. euh, moom mbooloo mépp mhm. def nañu li ñuy wax koloon couvrée ci suñu langage bu bopp la bokk ndax Hizbut Tarqiyyah ku ne dégg na sëñ Cheikh Bassirou Mbacké mu sëñ Abdou Khadre mu ne ay soldaar yoon wi lañ kon ci suñu langage yu soldaar uh-huh. ñu ngi koy feddali ma koy waxal mboolem membre Hizbut Tarqiyyah ci jotaay bi ñu xam ne def nañ kon couvrir ci ginnaawam hmm. fu mu ko aj danañ ko fa fekk ah, kon ñu xam ne kon ñu ngi woo ñëpp ci ziar bi bés la boo xam ne njëriñu àdduna ak ku alaaxira mi ngi ci yéene nañ ko suñu bopp yéene ko mbooleem ku nu bokkal yoon wi yéene ko mbooleem mbokk ju yéene ko àdduna sépp lay santaat a baax euh, sëñ Modou xam naa da ngay daal di tëj rek ci euh, ci ci benn buntu muy euh, soññee ci mbooleem daara yi waaye soññee ci mbooleem taalib yi nga xam ne si am na nañu yéene ñëw ca bis ba ak bu ñu ñëwee tamit sëñ Ibrahima doon ko junj léegi maanaam discipline bi nga xam ne si moom la ñu war a indi ngir la fa nekk ci ay tawféex ak njariñ ci sëriñ bi ñu man koo jël yóbbaale ko. jërëjëf sëñ Ibrahima Kébé Mouride Sadax ñu ngi lay ziar. Mm-hmm. di santaat Cheikhul Khadim Mbàkke ci jotaay bi. Mm-hmm. di wax ne lii nga wax. mooy jëm ci wàllu ziar bi ñu jëm. Mm-hmm. Cheikh Mamadou Mountakha yi euh, ba bañ mujjee daje. ci biir weeru koor gi laytu xadar. dañu bu ñu fàttaliwaat ci bu ñu kenn mag ci sëñ bi. gaa yu baax yi nañ meloon ci sëñ bi mhm. Mhm. mag ñi ànd na xaadim rasul mhm. nañ meloon futt ko ci àddina dëgmal suñ borom ànd ak sëñ bi sëñ Pape Assane dégg nga mu ne ña fekkoon mag ña fekkoon sëñ bi gànnaar dund nañu moom tartar yoo xam ne nii àggoon nañ ci moom danañ toog bis ba bis euh, danañ toog bis bi ba jeex duñu am luñ lekk mujj ku tedd ki muy génn ñu xool jëmmam ñoom ñëpp suur bëggatuñ dara sëñ bi nee na bu ñu kenn mag ci yoon ci sëñ bi kon maqaama yooyu ñu amoon. ak mm-hmm. garaat yooyu ñu amoon ak mm-hmm. bëgg googu ñu amoon. wóor na Cheikhul Khadim Mbacke moom la ñuy ñaan Cheikhul Khadim. Mm-hmm. moo ñu indi ci kaw suuf. dëgg la suñ lépp sëñ Tuubaa ko moom. na daayira yi di yaale. bu ñuy demee tey suba ñii nañ dem. ñuy dajale yi di ko indil Cheikhul Khadim. gis nga li fi li àddina fii. waaw dara lu jël téye di ko dajale di ko korkoral. amu fi loo fi sonal la. lu mu loo mën a gis rek nee na alal seen seen seen seen coono la. leen ba ci seen njaboot sax seen coono la. kon li fi ne mooy am ab sëriñ bu mat sëriñ nga di ko nga nga nga bu gindi la. ñu muy sëñ Cheikh Mouhamadul Mountakha. ñu am tawféexu Sëriñ Tuubaa dimbalee ñu ko ah dañoo war a góorgóorlu ci mm. ci ci ci ni ko tànn te loolu jëwriñ daara ji loolu la woote mm-hmm. moom la kon daara yëpp ñu ngi leen woow ñu xam ne diggante bi xat na mobilisation bi oto kaar yi bu ñu ñëwee mm-hmm. niñ ko organiser ak nañ war a mel la ñu sëñ Saliou daal ñu wax nañ mm-hmm. li ngeen may indil sax ni ngeen mel la ma <laughs> waaw nga xamante ne bi kon góorgóorlu ci ah. xeetu jikko yooyu ah. loolu rek mooy li am solo ah, kon nag ñu ngi santaat di waat membre yëpp ñu xam ne diggante bi xat na waaye na ñëpp waaj ñëw. ñu siyaare ji sëñ bi. Mhm. ci tew tawféex taysir ci barke borom Touba ñi ngi sant ñëpp bitim réew itam ah. bari nañu agsi ah. waaye ñi ngi xaar ñu ci des nañ ah. gaaw ñëw rek bu ñëwee ñu dajaloo dem ci sëñ bi ñi bëgg a ñëw itam ñëpp woo nañ leen ñu ñëw ñu ànd kër sëñ Touba gi lañ koy defee kii jàkkaarlu jumaa ju mag ji incha allah foofu lañ aménagé danañ ko climatiser ba mu sedd guy mhm. lu mu tàng-tàng boo ñëwee sedd rek ngeen dëgg la jërëjëf waaw waaw <laughs> mu ngoog jërëjëf sëñ Modou ñu lay santaat bu baax a baax <laughs> waaw caabi waaw mbaar mbaar ñu fay def gën gaa néew mhm. deux cent wala trois cent millions def nañ ko ci ngir mbaar yooyu ñu mën ko installé d'accord structure porte yooyu ñu fa def d'accord d'accord parce que man maa ngi doon tiit ci mbooloo mi euh, mbooloo mi nar a ñëw ndax danañu fa xaj waaye comme ni nga ko waxee nii xam naa ne moom lépp waajal nañ ko <laughs> incha allah lépp jekk na fu waaye mën a jógee rek ñëwal bu soobee yàlla euh, suñ Papa Sane bu ko defee ñu daal di ñu tëj foofu nga looy tàggoo. waaw xanaa damay damay tënk rek yaakaar naa kilifa yi moom. Uh-huh. ñoom ko aj euh, waaw euh, dafa am lu sëñ Mour Thiam mujjee. Uh-huh. muy lu solo. Uh-huh. mooy doomu ak lim xam nga dafa am seetlu boo xam ne defuñ ko. waaw mais borom xam-xam yi dañ koo seetlu. da ci am koo xam ne sëñ Mour dafa wax ne doomu aadama day. ku war a yeewu la nee na bu faatoo mhm. ñu fi des dañ mhm. naan lu fi lu mu fi bàyyi mhm. waaye ñam fekki dañ naan lu mu indaale oh. ñi mu fi bàyyi ñi des fii dañ naan waaw diw lu mu bàyyi ngir seddoo ko rek ak li mu fi bàyyi ñu jëriñoo ko du la jëriñ waaye sa bàmmeel boo demee ña nga fa fekk dañ naan loo indiwaale kon sa alal nag boo ko jiitalul du la jëriñ te ñu ngi ko bàyyee buñ ci defoon lu am jëriñ it ñoom lay jëriñ du la jëriñ kon kenn ku ne na xelam dem ci loo loo dem moo tax mu yonent bi sax moo ko waxoon ci addi ci addis ah. wax ne mm-hmm. Mm-hmm. bu doomu aadama faatoo njikko ko jaam yi ne ci mm-hmm. kaw suuf moom li li mu bàyyi ginnaaw lañu la ñuy lijjanti waaye malaaka yi mu fekki lam indiwaat la ñuy dëgg la dëgg mu waxaat itam ne doomu aadama alal ji mu am dara du ko ci jëriñ lu dul lim jiital ci bàmmeelam ah, ñaar rek moo ci am. mu lekk ko mu rees. mu sol ko mu rab. wala mu jiital ko mu jëriñ ko ëllëg. kon nag yaakaar naa ne fii mu fii mu wootee ci kenn ku ne la nga yor nga joxe ko. ku ko xam ak ku ko xamul sa njëriñ ci foofu rek la nekk. yaakaar naa ne eh, duñ am jotu dellusiwaat ci àddiya. waaw waaye du ñàkk beneen jotaay danañ ci dellusiwaat incha allah. ñu ngi sax jotaay may fàttaliwaale rek ne. Euh, incha allah waxtu wu ngoor gu jot. bu 21 jotee seen télévision Al Mouridiyyah da ngeen am jotaay bu mel nii waaw boo xam ne si dañuy fas yéene waxtaan rek ci wàllu ziar ak li nga xam ne moom mooy ziar bu mag bi Hizbut Tarqiyyah di waajal ci Cheikh Mamadou Mountakha euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax suñu papa euh, da nga da nga ñëwaat suba soobee yàlla <laughs> ko xool rek ah, <laughs> yaay kilifa jotaay bi tey dégg nga waaw sas sas nañ la ko tey <laughs> waaw kon baax na suñu Mamadou Lamine lay tëjee ci lu gàtt rek si Lamine waaw man de damay tëjee benn baat ah. bu sëñ mbay Jaxate di wax mhm. nee na ziyaare day tax a fulu day tax fulu. day tax fulu. waaw maanaam boo doon peese benn kilo. boo demee ci Cheikh Mountakha ziar yi ba ñëw. bu fekkoon fukki kilo nga àttan suñ la tegalee bëri ko boo ko yëkkati sa benn baaram nga koy yëkkati <laughs> dina la rokkos <laughs> dolli la ci suñu boroom defal la xéewal mhm. ak yiw mhm. te àddina moom mhm. koo gis ñaari lay wut mucc ah, ak dolli ko sëñ Saliou Mbacké nag dañ ko ziyaar mu ñaanal ñu loo xamante ni ziyaar da koy maye ne maa ngi di ñaan lu mucc ak yokk ak jariñu kon na ku bëgg mucc bëgg yokk mhm. bëgg a jariñu mhm. ñi ngay jox rendez-vous le 22 incha allah ci teewaay Cheikh Mouhamadou Mountakha mu ngoog jërë ngeen jëf kon lii la ñu leen indi leen tey ci seen jotaay bi yaakaar naa ñëpp bëgg nañu li ñu fi jot a dégg euh, dal na xel lool lool lool lool euh, suba incha allah daañu dellu siwaat ci beneen jataay nii lañ koy jàppe ba keroog euh, samedi incha allah wala ba keroog ajjuma bu soobee yàlla ngoon gu jot rek bu 21h jotee ci seen télévision Al Mouridiyyah ngeen dàkk waxtaan yu am solo yoo xam ne dafay jëm rek ci ziar ak njëriñ ñi nga xam ne si moo ci nekk su ko defee kenn ku nekk mën a bàyyi xel ci date bi muy le 22 di samedi 22 mai incha allah 2021 ñu ngi cay xaar ñëpp nag di soññ ñëpp di woo ñëpp euh, fu ngeen mën di nekk rek ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu ngi leen ciy xaar ñu leen di ñaanal guddik jàmm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu cheikh mouhamadou muntaqa mbakke sagal nga lislaam jërëjëfe mbakke nan sant rek te soññ bu nu geesu bu nu taxaw cheikh mouhamadou muntaqa al mbakki di la sant ka ziyaar daa war dàkk jërëjëfe Hizbut ay géej ay tund ay montagne bu doxoon sa diggante sa sëriñ da nga ko war a ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru mai 2021 Touba daara Hizbut Tarqiyyah moo fas yéene amal ziar bu mag ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Hizbut Tarqiyyah